bismillah arrahman irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin uh, mbokk yi ñuy topp ñu ngi leen di nuyu nuyób lislaam di wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyoo fii ci jumaa ju mag ji jumaa Seyxul Xadim fii ci Touba di nuyu bokk jullit yépp di leen ziyaara di leen ndokkeel bu baax ci weeru koor wu màgg wu tedd yi nga xamante ni tàmbale nañ ko di ñaan sunu boroom mu may ñu ñu àggale ko ci jàmm te taxawe ko ngeen jaare feti taxawin te sunu boroom defal ñu ci lépp lu ci digle ci yërmande ak ay xéewal kon ñi ngi ziyaare ñëpp di tàmbalee siyaara bi ci kilifa gu mag gi ak Cheikh Mouhamadul Muntaqa alxalifatul aam li al muridiya di ko ñaanal sunu boroom mu dolli ko ak wér dolli aw fanam dolli ko kàttanal ba mu àggale liggéey bi nga xam ne moom lay liggéeyal Sëriñ Tuubaa nam ko bëggee tamit liggéey boo xam ne lislaam bépp la koy liggéeyal ginnaaw loolu mbokk yi ni ngeen ko xamee daairatu muqaddimatul xidma bi nga xam ne moo féetewoo taxawu yi tuubaa ju mag ji ah, faral na rek saa weeru kor wi teroo mu boole ci ab liggéeyam ay jataayi xam-xam yi nga xam ne da koy amal fii ci biir jumaa ji ngir dundale ko weeru tedd wi dundale ko yi tamitam jumaa ji ndax kenn ku ne xam na ne weeru koor mooy weeru xam-xam ndax mooy weeru alquranul karim euh, alquranul karim ni ko Sëriñ Tuubaa waxee mooy cosaanu xam-xam yépp kitaabu xayril wara aslul ulumi maan wa huwa alkitaabu lasi man wax na ne xam-xam yépp ñu ngi cosaanoo ci alquranul karim xam-xam bu am njariñ bu nit di jariñoo ci àdduna rek ci alquran la jóge keneen ku ut xam-xam ci waneen yoon wu dul alxuraan wala bu wuteeg na ko alxuraan jàngale lu ci am lam ci bëgg kon yàlla na lool bu weeru koor teroo ñu jullit yi delluwaat ci alxuraanul karim bu baax nafar ko nafar xeeti xam-xam yi ca nekk yépp te weesuwul lu dul lu leen di jàngal seen diine ak di leen xamal nan la nekkee ci àdduna ba li nga xamante ni moom la leen fi suñu borom indee mission bi mu leen di doxloo ñu mën koo taxawee gën jaa rafeti anam wan ci kaw loolu dana jaadu jullit yi fu ñu mën a ne ci àdduna ñu delluwaat ci alquranul karim kitaabullah ah, delluwaat ci xam-xam nafaraat ci ay bind yoo xamante ne ni danañ ko mën a yóbbuloo ci seen at mi yëpp ci kaw loolu la daa daairatu muxaddamatul xidma di def jataay yu mel nii yàgg koo taxawee lool tey jii incha allahu tabaraka wa taala danañ ñëw ak yéen ci tomb bu am solo boo xamante ni ñu ngi ko tuddee almuridiyatu wa taxaddiyaatuha almuridiyatu wa taxaddiyaatuha maanaam yoonu murit li ñuy wax almuridiya bu nga waxee mooy li Sëriñ Tuubaa woote woon daxawaam bu am solo boobu mu fi ñëwoon ngir beetal ngir yeesal lislaam dundalaat ko ba nit ñi gën koo gën koo xam na ko solo alayhi wa sallam woon ak taxaddiyaat yi nga xam ne moom la am bu ñu waxee taxaddiyaat maanaam mooy dëkk yi koy dëkk buñ ko dee wax ci olof bu gën a jege nag maanaam mooy jafe-jafe yi taxaw diggante yoonu murit ngir mu def ab liggéeyam tomb boobu la ñu fas yéene indi tey di ci ànd ak sëriñ Fallou Bousso Assane sëriñ Fallou buso yaakaar naa ñëpp miin nañ ko ci jataay ci di ko taxawee di def ay conférence yu am solo di ko xam ne naka jekk ci xam-xam la yëngu ba fii mu toll nii yaakaar naa ñëpp miin nañ ko ci ay muxaadaraatam muy tomb bu am solo nag boo xam ne ñu ngi sàkku ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ndax day tomb boo xam ne noonu ñu ko waxee yoonu murit ak jafe-jafe yi muy jànkonteel ñëpp la soxal ñëpp ci war a bàyyi xel ndax bu waxtaan wi àggee ñu man koo xam jéem a seet nan lañ koy nan lañ koy nan lañ ciy indee ay saafara boo ko defee sëñ Fallou dana ci ñëw ci tàmbale bi danañu andil ab laytaayal ci lu jëm ci tomb bi mu war a waxtaanee dana ci def benn muqaddima benn introduction boo xam ne moo ñuy laytaayal nan la ñuy duggee ci biir tomb bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee bu ci noppee dana ñëw ci ñaari baat yooyu ñu wax maanaam tomb bi ñuy waxtaanee yoonu murit ak jafe-jafe yi muy jànkoonteel ci jamono ji ñu toll lan la ci jublu lan la jublu ci boo almuridiya lan la ci jublu bu waxee jafe-jafe yi muy am ci jamono jii ñuy dund lan la ci jublu dana ci ñëw baat bu ci ne mu leeral ko ba bañ gën a xam lan lañ ci jublu bu ca noppee itam danañu indil ay ay misaal ci jafe-jafe yooyu ndax jafe-jafe yi day mën a seddlu ko ñaari jafe-jafe loo xamante ne nii ci biir murit gi la nga xam ne ci suñ biir la nekk ci biir murit gi lay jóge ay mu di ay jafe-jafe yoo xam ne day tënk doxub yoon wi ak yeneen i jafe-jafe yoo xam ne moom jugewul ci biir yoon wi waaye ci bitt lay jóge ndax àdduna ji ñuy dund ah dafa dañ fee nekk ak ñeneen nekk fii ak yeneen léeg-léeg nag li nga bëgg doxal mu am ay gàllankoor yu koy gàllankoor yoo xam ne du jugee ci yow waaye ci bitt lay jóge yooyu itam dana ci ñëw ak ñun laataa muy mu koy muy tënk waxtaan wi yëpp incha allah taala kon ñuy dellu di wax rek ne mawdon bu am solo la bindu bu am solo la boo xam ne ñu ngi ñaan ñëpp teewlu ko bu baax a baax a baax ah, ñuy ñaanal ah, sëñ Assane sëñ Fallou bu sa Assane suñ borom defal ko ci tawféex ba ni nga xamante ni noonu la ko waajale mu defee ko na kawe njortam xanaa balaa ñu ko jox kàddu gi rek ñuy fàttali bokk yi ne niñ ko xamee ni jamono tëddee ren jii ba tax niñ ko daan defee mbooloo mi di dajee mën a suñu borom dogalu ko ren. waaye du te euh, daayira bi góorgóorlu yi mu daan def mu jéem a xool nan la koy dëppale ak jamono ba mën a àgg ci mbooloo mi gën a jàppandi rek lu mu mën a àgg ci ñoom rek ci liggéey bi muy def mën koo àggale ci ñoom ba tax ñuy joxe ay numéro yu nga xamante ni lépp lu nit ki soxla ci ay laaj yu jëm ci koor ci nan la ko ab jullit war a defee ak njariñ yi ci yi mu làmboog yépp rek ci lépp loo xam ne dañ ko daan def bu doontoon ci jamono ji yëpp tamit daayira bi waajal na ko bu baax fas yéene koo def dontale nag da koy def ci anam goo xam ne duñu ñu jonjoo waaye dañ koy jaarale ci jumtukaay yu xarala yi nga xam ne ci la ñuy jokkoo ci kaw loolu lay joxe numéro yi nga xamante ni képp ku bëgg a jokkoo ak bi am loo bëgg a leerlu ci sa diine wala loo bëgg a xam rek bu soobee yàlla boo ci jaaree danañ ko jot te itam danañ ci def seen kéemtulaay kàttan bala nga soxla ñu jéem cee taxaw. numéro yi mi ngi nii bu njëkk bi 77 la 295 24 77 am na tamit 77 585 17 55 amaan na beneen numéro 77 678 57 66 numéro yooyu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci bitti ci rajo yi ak ci télévision yi képp koo xamante ni bëgg nga am loo àggale ci daayira bi ci looy war a gëstu rek bu soobee yàlla boo ci jokkoo yaakaar naa ay numéro whatsapp la boo ci bindee rek bu soobee yàlla danañ danañ leen ci tontu nu mu gën a jàppande incha allah taala kon du ñu def lu dul bàyyi sëñ Fallou bu Assane mu ñëw ak ñun ci tomb boobu nga xam ne waajal na ko te mooy yoonu murit ak jafe-jafe yi muy jànkonteel ci jamono ji di ko ñaanal suñu borom defal ko ci tawfeex mu jàllale ko ni nga xamante ni noonu la ko waajalee kon sëñ Fallou bismillah aus billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu suñ Murtada ñu ngi lay nuyu jaar la ci sunu nuyu mu àgg ci mboolem ñi nga xam ne nii ñoo ñu topp du ñu déglu di ñaan sunu Boroom subhaanahu lim def ci nuyu boobu ci barke weer yu ñu nekk ci weeru koor yi muy jàmm ak yërmandi ak barke sunu borom ful ko te tasaare ko ci réew yëpp rawat na réew yi nga xam ne nii ay jullit ñoo fiy dund waaye rawat na sunu réew mi di nuyu baax waa daayiratu muxaddamatul xidma ci kilifteef al imaam di rafet lu baax jataay yi nga xam ne nii ñu ngi koy def ci weeru tedd wi di weeru koor te jàpp ne bokk na ci li ñu koy def mooy fexe ba niyee nit ñi xamal leen seen aada ak seen cosaan ak seen cëslaay bañ xam fi ñuy teg seen tànk waaye itam xam li jamono laaj bañ mën koo dëppalee ak moom ñaar yooyu defe naa ku ko bëgg a def bokk na ci jumtukaay yi nga mën a jëfandikoo mooy ngay def jataay yu mel nii di ci waxtaane mbir yi nga xam ne nii jàpp na ne war nañ caa waxtaan te war caa leeral te war caa gindee te war caa yeete te def ko ci façon boo xam ne nii lépp luy xeeti farparloo aku féete aku kuréelu dañ ko ciy génne waaye itam lu nekk ñu jàngat ko ni ni ko sunu xel maye waaye itam ni ni ko gëstoo jàngat ko gaaral ko te jublu ci leeral rek te ñëpp mën a jariñu bañ caa wut leneen luñ cay wut loolu defe naa rek mooy li nga xam yoon yi nga xam ci lañ mën a jaar ba yenn nat yi nga xam ñu ngi koy dund te muy lu mat a xool mat caa waxtaan mat koo wutal ay saafara loolu bokk na ci lii tax ñu man koo def comme ni nga ko junjee léegi suñu moto daan bu ñu xoolee nag ci seetlu dañuy gis ne dund doomu bu nekk nit ku nekk booy dund wala kuréel gu nekk buy dund kuréel bu ñu ko waxee yoonu murit mën na caa dugg xeet wu nekk dañuy dund wala nite humanité ci boppam jamono ji nekk day am ay jamono yoo xam day ñëw di jamono yoo xam day marqué dunduk mbooloo moomu wala dunduk nit kooku muy ay jamono yu gàtt yoo xam ne ni bu feeñee ci dundum nit ki wala dundum mbooloo mi dañuy wax ne daf ci indi ci biir li ñuy tuddee xatiya xatiya mooy li ñu tuddee rupture maanaam day dagg dagg googu li ñu ci jublu mooy jamono la joo xam bu ñëwee bu jàllee la ko jiitu woon ak la topp jamono jooju danañ wuute lool lool lool maanaam la ko jiitu woon ci melokaan ak lay topp ca moom ci ay melokaan danañu wuute la ko jiitu woon ci doxalin ak la koy topp ci doxalin mën nañoo wuute lool lool loolu nag ci dundu nit di ci am noonu lay amee ci dundu kuréel yi noonu lay amee ci dundu xeet yi noonu lay amee ci dundu doomu aadama bi sifatin wala boog ci gën a matale ku xool nag jamono ji heure bii ñu toll nii ni muy dundee ak situation fi mu toll ak ni mu tëppoo ak ni mu mel war ngaa mën a xalaat ne ndax tolluwuñ ci jamono joo xam ne nii bu jàllee li ñuy tuddee jafe-jafe bi fi nekk bu jàllee la jàlloon la la jàlloon dana wuute lool ak lii ñëw bu jàllee yëf yi doon doxe ak ni mu doxee bu jàllee dana wuute lool ndax ñoo ngi dund situation boo xam ne nii crise lañ koy tuddee li ko waral mën na wéra di ak leen wala yooyu waaye almuhim daal ñu ngi dund situation boo xam ne nii mën na la wax ne ci histoire àdduna mësu koo gis mësu koo dund muy jamono joo xam ne lépp lu doon yëngutu dal la lépp lu doon yëngutu jamono ji xëy na xel dal yëngutootu loolu nag ci histoire defe naa ne bu ñu ci delloo gisaguñ fu ñu ko bind ne jamono ji mel nii doomu aadama yi dundagun dundoon nañ ko ci ay jamono ndax ku nekk ñun mën naa am gis nga wala ba mas ngaa dégg lu néew néew mas ngaa dégg wala nga fekke wala nga gis koo xam ne ni ci biir barabu jaamukaay yàlla am lañ ko fekk ñuy mbooloo wala muy kenn ñu boom ko loolu ku nekk dégg nga ko wala nga gis ko ku ñu rey ci barabu jàkka wala fa muy jaamoo yàlla ku nekk ñun dégg nga wala gis koo xam ne nii ña ko fekk ci biir fa muy jàngalee ci classe am wala daaram fa lañ ko fekk faagaagal ko mook moom ak lenn ci ay dongaam dégg nañ ko ba tey wala ñu gis ko am na koo xam ci biir barabu liggéey gaa am lañ ko fekk moo xam usine la wala entreprise ba muy liggéey fa lañ ko fekk lor ko dégg nañ ko wala ñu gis ko ba sax njiitum réew mu ñu fekk ci biroom mu toog di liggéeyal am réew ñu fekk ko fa boom ko gis nañ ko wala ñu dégg ko jamono yu nekk ku nekk ñu jàng ci histoire na ñaari xeex jaar na fi ñu leen ñaari guerre mondiale yoo xam ne ay millions doomu aadama ñoo ci faatu ay alal ju dul jeex juñ moo ci yàqu ku nekk ñun dégg wala nga jàng ci histoire ne li mbas wala boog yu mel noonu li ñuy tudde waba wala mbas wala pandémie wala épidémie yooyu jaar na fi jaarati fi dégg nañ pest ba wala peste ba dégg nañ choléra dégg nañ Ebola ak yu mel noonu kon loolu du lu bees kon lu metti jamono ji nekk daana am ñu koy dégg ku ko déggul jàng ko wala nga gis ko jamono yàgg na indi yu metti yàgg naa indi yu mel nii waaye nag yooyu lim daan metti metti ak lim daan jafe jafe jafe mësuñoo dégg mukk ñu ne àdduna bi tëj nañ ko lu mat ñaari weer wala ëpp lu ko ëpp ay weer ñu tëj ko dara yëngatuwutu dara dematu dara dikkatul ñu tëj ko loolu ci histoire defe naa ne lu bees tàq la loo xam ne nii ñu ngi koy door a gis loolu ci lañ mën a sukkandiku ba kon jàpp nañu ne lii bu weesoo beneen situation bu bees mooy ñëw muy diggante boo xam ne kon xat na àdduna bépp ñu tëj ko nit ñi seen àq yi gën a màgg ci ñoom gën a cher ci ñoom ñu dox seen diggante ak di ko defe nañ ko bëgg a defee te ñu dem ba ci nit ki ni mu bëgg a jaamoo yàlla ñu xañ ko ko dootu mën a jaamoo yàlla noonu loolu xëy na daanam waaye ni mu amee daawul amee noonu dem ba xañ la ci nga dem seet say mbokk ñu xañ la ko tukki mënatoo ko mënatoo génn seet sa mbokk ñu xañ la ko ñu dem ba ci génn sax nokki air nokki ngelaw lu set yàq sa njaboot dem toog ci jardin public wala fu ñuy féexlukaay nga toog fa nokki fa ngelaw la nga bëgg a nokki loolu ñu def ba xañ la ko kon ñu xool ni xañ nañ la léegi àq ak yelleef yi gënoon a seer ci yow nga gën ko am ñëpp jàppoon ne nit waruñ ko koo mën a xañ ñu xëy xëy benn bis xañ la ko lépp ni teg lépp dal loolu situation bu bees la boo xam ne àdduna bi mu ngi koy dund loolu nag liñ ci mën a jàngate mooy ne kon loolu dagg nar naa am dagg gi mooy ne bu ñu lu baree bari jàpp nañ ne war naa dana soppi ko ci suñu gis-gis ak nañ ko jàngate loolu nag bu mel noonu nag bu amee dëgg la waxtaanee li fi nekk muy jafe-jafe bi am na solo lool fu ñu toll di ci waxtaan ak fi mu toll xëy na am na solo waaye li ëpp solo mooy ku nekk ñun nga xoolaat sa bopp yow nit nga kenn nit nga xoolaat sa bopp mbooloo ngeen dib kuréel seq yoon wala wala yu mel noonu ngeen xoolaat seen bopp ngeen diw xeet ngeen xoolaat seen bopp ba bu yëf yi jàllee naka la ñuy jógewaat ban départ la ñuy amaat loolu képp ko deful yaa xam kenn nit nga wala xam mbooloo nga wala am réew nga jamono ji toll nii képp koo xam ne nii xooloo jàngatoo bu yëf yi weesoo man ban départ laa war a amaat boo wutul train bu bees bi départ wala saxaar gu bees gi war a déq gannaaw bu jafe-jafe bi jàllee boo wut dan la fi bàyyi te bu la fi bàyyi boo wut lu baree bari dan la raw kon jàngat gi lu mënta ñàkk la moo tax ñun ñi en ay murit yoonu murit te mooy li ñu war a waxtaane tey bokk na ci li ñu war a jàngat mooy situation bu beesee ñun bu maanaam jamono ji ñu toll nii melokaan wii bu fi jógee naka la ñuy jógewaat ban départ la ñuy amaat loolu mooy dafay dugg suñ tomb tey bi loolu mën nañ koo def ci ay laaj laaj yu baree bari yoo xam ne nii mën nañ koo laaj suñ bopp te buñ ko laaj suñ bopp bu nëpp na ñu ñëpp ñu bokk jéem koy wutal ay tont waaye tontu lañ koy wutal dañ fekk mu nekk nañ fexe ba mu nekk tontu loo xam ko dégg dana xam ne tontu la loo xam ne nii xel man na koo nangu waaye tontu loo xam ne itam ki koy tontu maanaam génne na ci lépp luy bëgg-bëggam ak lu muy bañ waaye na xool na ba xam ne lii nii la war a demee mu joxe tontu lu mel noonu loolu buñ ko deful moom ku ko deful na la wóor ne bu saxaar ga buy déqiwaat bu wutul fi la lay bàyyi te bu lu baree ba dañ la raw war na noo mën a laaj ndax ñun discours bi discours bi ñu amee woon avant jafe yi am. mu doon discours boo xam daana bàyyi jeexit lool ci nit ñi ñu ko daan déglu baax a baax ndax discours boobee bu yëf yi jàllee dana walaabal na walaabale woon bu njëkk yaatu la discours la bu boo xam ne nii mi ngi daan jàll bu baax di bàyyi lim daan bàyyi jeexit bu baax a baax waaye nag bu yëf jàllee ak ni mu tëddee nii ndax discours boobee dana mën a jàll na mu daan jàlle ab laaj la nu war koo tontu war na noo xool tam lu tax. tey ñun ñu ñu séqal ci réew mi ñu jàpp nañu ni dañoo jàppe suñu bopp noo xam ne nii dañoo nekk ci kaw yoon ba tax na ñun bi ñuy wax ay loi ak ñun taxuñu koo jóg ba tax na ñoom seen mer mépp ñu jàpp ne dañu koy jël sott ne ko ndax ñun dañoo jàppe suñu bopp ne waruñoo dëppoo ak yoon waruñoo dox ci yoon mi nga xam ne nii ci la neen ñi dox loolu war nañ koo jàngat lu tax ñoom ñu xalaat loolu war si na ko jàngat xool ba xam lu ca lu ca lu ca nekk ak lu ca nekkul war na koo xool war na noo xool tam suñu digganteeg ñi ñu seqal diine ji ñuy ay kuréel yoo xam association yoo xam dañoo sos ci réew mi ne ñoom ñoo ŋànk diine ji te ñu xool gis ne am na décision yu am solo yu ñu jël ci turu diine ji te niñ war a dellu see ci ñun diisoo ci diisoo ci ak ñun en tant que murid nag en tant que entité maanaam boo xam ne nii mbooloo waxuma nañ jël par benn benn ci biir murid yi waaye ñu ñëwaat dellu si ñun jël ñu comme mbooloo mu takku ci benn nos ci génn buum jël ci suñu xalaat dégg suñu xalaat balaa ñoo jël décision loolu mel na ne manqué na ci yëf yi loolu loolu war nañoo xool lu ko waral ndax ñoom dañoo jàpp ne ñun suñu diine dañoo dañu dañoo ñorewut ñoom leen leen seen diine ñore wala ñoom seen bopp ñoo am leneen seen yéen seen seen yeneen yitte yoo xam moom lañu bëgg a saafara waale ci biir mbir mi loolu war nañ koo gëstu jéem koo wutal tontu war na noo tam lu tax léegi taskatu xabaar bu jóg boo xam ne wax ma sax taskatu xabaar waaye kuy waxkat bu jóg rek te bëgg ña lay déglu wala ña lay seetaan yokk nga daal di jël sa big sa xalima wala nga jël sa rajo wax ci la neex ci murit loo xam ak loo xamoon nga wax ko ci ngir bëgg rek ña lay yéem xëy na gën a bari loolu tam war na noo xool lu tax nit ñu def ñu maanaam maanaam maanaam loo jumtukaay boo xam dañ ñuy jëfandikoo saa yu bëggee siiw rek ñëw jaar ci ñun daal ñuy jëfandikoo loolu tam war na xool lu ko waral ak ban taxawaay lan ci war nañoo laat suñu bopp ndax jotul sëkk na ko suñu mag ña defe woon ñu feeñalaat bu baax suñu doolee politique sunu poids politique bu ñu am na ko suñu mag ñi defe woon feeñal ko bañ jox leen cër bañ leen joxoon ndax jotul sëkk ñu wanewaat ko wane gi mooy ñu fexe bañ xam ne ñun ñii di ay murit képp ku nag ku falu ci réew mi bu ñu neexee doo faloo buñ la bëggut buñ bëggut nga falu doo falu buñ bëggee ñëw foll ko mën nañ laa foll loolu moo fi amal naka jëkk ñu wane woon kum ba tax yi fi daan doxe loolu doon ci dellusiwaat ci kanam tuddi waaye la ci laaj ji la bokk ndax dellusi woon nag jotuñu sëkk nu xamalaat ñi ñu sëkkal réew mi ne leen ñun ñii buñ takkatoo kuñ bëgg fal mën nañ laa fal kuñ bëgg a folli mën nañ laa fol te boobaa képp kuy sóor danga ñu sóoraale ndax jotul ñu feeñalaat suñu doole ci wàll koom-koom ñuy communauté boo xam ne nii lépp lu luñ bëgg a def ci wàllu koom-koom amul fu ñu koy jëggaani ñi ñu sëkkal réew ñëpp war nañ leen xamal ni amu ci benn communauté boo xam ne tey boo soxloon projet boo xam ay 40 milliards wala 50 milliards nga ciy def da nga ko soppal te loolu yaakaar naa ne doole jëwit ñu am te ku nekk am ku kenn ku nekk xam ne nag ku am doole yi man-manu def war ngaa am man-manu dindi alal dafa bokk ci jumtukaay yi nga xam bu la ko yàlla joxee nga am ko ni nga ko war a amee dëgg-dëgg mën ngaa def lu bari mën ngaa dindi lu bari loolu ndax jotut kon ñu feeñoon na ñun suñu kàttanuk alal jooju ne suñu loxo waruñ koo gën a mën a xool nun koy jëfandikoo waxuma nag suñ kàttan gi ñu am ci wàllu ruux pas-pas bi ne ci ñun nga xam ni tey ñun ñooy mbooloo moo xam ne nii tey bu sëñ bi ne woon seeni bakkan laa soxla xawma yenn gaa yi de waaye xam naa ne ñu baree bare moom seen bakkan danañ ko joxe loolu pas-pas boobu ne ci biir murid yi ndax jotul nu feeñal ko yooyu dafa laaj ñu delloosi ko ndax day tax ñu ñu seqal war a jëflanteeg ñoom cër bi ñu war a jox daanañu ko mën a jox ndax ndax ndax loolu doole la joxoon comme ni sa nga boole ko war ngaa mën a soppi lu bari war ngaa mën a décider lu bari war ngaa mën a doxal lu bari soo xamee na nga koy jëfandikoo ndax dama toog jamono joo xam ne nii léegi nekkatu jamono yu baatin dëgg la baatin baatin kenn du ko fi jëlee waaye nag jamono yi rapport de force lañ nekk jamono joo xam da ngay wane ni nii laa toll ñu jox la sab cër boo ko wanewul ñu jox def la jumtukaay jëfandikoo la loolu kon defe naa ne ci li ñu war a xoolaat jànge ko ci jamono ji ni mu tëdd ni mu tëddee nii ci la bokk waaye da war nañ cee xoolaat ndax war waruñoo àgg ci xoolaat ba xam li nga xam dafa sax te du soppi ko ci njàngaleem sëñ bi ak li nga xam ni daa mën a soppi war a soppi ko war koo soppi soppi ko ndax loolu jotut ñu xàmmee leen li nga xam moom sax na kenn du ko laal waaye nag am na yoo xam ne nii daa mën naa soppi ko te war naa soppi ko ci suñu biir nu soppi ko loolu tam war nañ koo xoolaat te jàngat ko jàngat bu gën a dëppoo kon daal. défi bi gën a mag ci jamono ji ñu toll nii wala boog li dëkk murit gi ci jamono ji ñu toll nii mooy nu ñuy mën a fexe ba laaj yooyu yu ñu laaj ñu tontu ko tontu loo xam ne nii xel mu ko dégg dana xam ne lii ki koy tontu teg na ko ci xel mu nangu waaye tam teg na ko ci mawdu yi mooy objectivité boo xam ne nii maanaam par parloo néew ci waaye dafa jàngat mbir mi nim nim ni mu ko jàngate noonu noonu la ko joxee gisee ko noonu wala boog ñu daal tontu daal naka la ñuy mën a fexee ba jógaat bu ñuy jógaat ñun en tant que ay murit naka la ñuy jógaate bu yëf yi jàllee foofu la tomb bi ñu tonte war ko waxtaane xëy na solom foofu lay feeñe ndax mooy défi wala boog mooy li dëkk yoonu murit jamono ji ñu toll nii mooy situation bi ñu toll nii nu war a xool buñ ci jógee nu ñuy déparaate buñ ko deful nag fi la xiixa waaw yàlla rek xam kon ni ko sëñ bi waxee léegi loolu mooy laytaay waxtaan yi gis nañu ne kon tomb la boo xam si na koo mën a waxtaane surtout jamono ji ñu toll nii bu fekkee dañ nag murit gi ak li leen di dëkk war na noo xam le murit gi mooy lan war na noo xam dëkk buñ ko waxee luñ ci jublu waaye nag buñ noppee xool yi nga xam de dëkk murit gi te nekk ci biir murit gi ba noppi di dëkk murit gi ak li nga xam ne ci bit lay jógee di dëkk murit gi lu nekk ñu joxe ci mandar ñu joxe ci exemple joxe ci misaal ba noppi boole koog lañ xalaat ne buñ ko defee loolee war nañ koo mën a weesu ba jàll kon lan mooy ak murit murit ya mooy lan bokk na ci li ñuy xamee ne nit ki mu ngi comme xelam te ko jëfandikoo mooy balaa dugg ci mel ni mbir day xam la muy dugg lu mu doon xam la ca biir xam la muy sàkku ci moom bu duggee ci loola ba noppi la mbir may sàkku ci moom njàng la mi sëñ bi jàngale te muy murit gi yëg itam génnul ci maanaam teslaay boobu moo tax bu bëgg a wax kon lan mooy ak murid dëgg-dëgg dañu naan rek murid daal yoonu yarin la aw yoon la woo xam dañ ciy jaar ngir defar nit ki sëriñ bi aw yoon la woo xam da koo tëral ngir jaar ci ngir defar nit ñi tàmbalee ko ci defar seen yaram ba mel ni war a mel waaye defar seen ruux ba mel ni war a mel kon tënk ko ci col tënk ko ci dëkkiin tënk ko ci waxin donte col gi ak dëkkiin ak waxin lu am solo la war na noo sàmmanteeg moom ba li ci biir mën a dëppoog li ci kaw waaye nag du ci lu ci mënta ñàkk kon murit melokaan la woo xam ne ne ci nit ki mu koy dund bis bu set ñu koy gis ci aw doxinam bu nekkee ci jàkka ñu koy gis ci moom bu nekkee ci mbedd mi ñu koy gis ci moom bu nekkee ci place liggéeykaay ñu koy gis ci moom fu mu mënti melokaan woowu di feeñ ci moom loolu mooy li yoon murit ci tënk muy melokaan woowu muy loo xam ne nii ci la sëñ bi defaroon ay nit ba yar ci ay nit ba ku leen gis xemmeem leen ku leen gis xemmeem leen duñ la wax kaay ci ñun waaye yaa leen di gis xemmeen leen ñëw topp topp seen gannaaw ngir bëgg liñ bëgg gaaw googu mu gaaw nag defar googu mu defar ñooñu nag te ñu samp fu nekk nit ñi di leen gis ñuy xëcc di ñëw ci ñoom moo tax mu tasaaroo tasaaroo bu gaaw boo xam ne ni kenn woteelu ko kenn propagande waaye nag tasaaroo gu gaaw gi mu tasaaroo moo tax ñu bari dugg ci biir ngir xemmeem ko waaye nag taxut ñu xam dëgg-dëgg murit gi mooy lan. ñu baree bari dugg ci biir ba noppi nag di ko firil seen prime bopp di ko firil seen prime bopp moo tax léegi déggin yu baree bari ngay dégg ko ku ko ràbb ba mu neex ko rek mu ne lii mooy ak murit wala boog mu ràbb la ko neex ànd ca ak di ca dund ba noppi gëm loolu ne lii mooy ak murit te du ko delloo sëñ bi muy yu baree bari yoo xam ne defe naa ne wax nañ ci waxati ci muy déggin yu baree bari yoo xam ne nii sos na ci biir njàngale mi ñu koy firee njàngale mi sëñ Tuubaa te sore nag li sëñ bi doon jàngale te mooy ak murit kon loolu ci la baat bi sosoo ba dégginu yu bari dugg ci biir buñ la ci bëggoon jox misaal rek baat bi ci mujj nga xam léegi mi commencé di tasaaroo mooy baatu bàmba ji bàmba ji léegi nit ñi ñu ngi koy tasaare di ko wax jox ko seen biir bañ jàpp ne bàmba ji mooy murit gi te bàmba ji ak murit gi bokkuñu xëy na mag ñi daa dañ jëfandikoo baatu bàmba ji waaye ci ay jamono lañ ko daan jëfandikoo yoo xam bu ñu toogee bëgg a waxtaan seen biir noonu lañ ko jëfandikoo waaye daawuñ ko jëfandikoo ngir jiblu ci ne mooy murit te léegi gis nga léegi yooyu léegi dafa dem ba yi di ko di ko wutal ay tur naan bambisme bambiste di ko xaral ay tur ci yenn làkk yi ngir bëgg a waneen loolu mooy njàngaleem sëñ bi te ku ne xam ne ne yoonu murit sëñ bi mësu koo tënk ciw sant mësu koo tënk ciw tur mësu koo tënk ci gox ndax loolu lu dangereux ci yoonu murit bu ñu fexee ba yëf yi ñu jël ko tënk ko ci turu sëñ bi wala ñu tënk ko ci dëkku sëñ bi wala ñu tënk ko ci santu sëñ bi boobaa la muy gàllankoor ci yoon yi moo ëpp la ciy defar loolu lu dangereux loo xam ne ni suñ moom teeral na koo xam ba mës koo def léegi nag commencé nay dugg ci biir jëf yi te ñàkk ñàkk xam moo koy waral ndax boo ko defee képp koo xam ne nii bu fekkee na ko askanale ci ci dëkk wala nga askanale ko ci nit képp koo xam ne nii dëkkul ca dëkk boobee wala amul genn relation ak nit kookee moom day jàpp ko la ngay wax yitteelu ko taxoo koo jóg kon loolu moo tax tënk ko ci nit loolu lu mat teel a waxtaane la ñu yee ci nit ñi ñu xam ne bokk na ci déggin yu juun yi ñuy def ci murit gi kon baatu murit bu ko bëggoon wax dëgg dañuy dellu sëñ ci boppam lam bindal boppam ne lii mooy ak murit ñu ñu tekkil ko nit ñi ñu xam ne loolu mooy ak murit bu ñu delloo ci li mu ñu sëkkandikoo ci ay delluwaay yu baree bari mën nañ koo tënk ci ne sëñ bi tubaab yi mas nañ koo laaj ne ko ak murit mooy lan lam leen tontu woon dañ ak murit daal ñetti tànk la am mooy ngëm yàlla gu tegu ci tawxiid islaam ju tegu ci fiq ihsaan tasawuf bu tegu ci ihsaan wala boog ihsaan bu tegu ci tasawuf mooy ngëm yàlla gu tegu ci tawxiid lislaam ju nit dund tegu ko ci li ko fiq maanaam jàngale waaye itam ihsaan te mooy ngir mi bu tegu ci tasawuf bu set loolu mooy yoonu murit kon boo jëlee ngëm juróom benn ponk lam am juróom benn ponk yooyu yëpp bu nekkee ci nit ki di feeñ ci moom mën da andi nit ku yamamaay mën da andi nit ku nit ku doyadi mën da andi nit ku feebal waaye nit ku nite moom lay indi juróom benn ponk yi ngëm yàlla bu nekkee ci nit comme ne ci yow doo doon nit ku doyadi nit ku mat sëkk ngay doon lislaam ci juróomi ponkam yooyu ni ko jàngalee képp comme ne ci yow da koy dox na ko da ko jàngalee ba tey nit ku mel noonu lay joxe ihsaan nag kenn waxaale ko ndax ihsaan moom beneen ba tënk ko nee na mooy nga gëm ni amul kenn ku ñu war a jaamu ku dul yàlla jaamu yàlla ba mel na yaa ngi jàkkaarloog moom mu wóor la ne boo ko gisul yow tam moom mi ngi lay gis loolu mooy ihsaan kon yoonu murid bi ñu ko mooy lislaam ju set wicc yoo xam ne nii dara koocu ko dara raxu ko loolu mooy ak murid loolu nag soree na lool boo ko jàngalee noonu dana sore lool ak murid yi ni ñu koy dundee léegi ak na ko sëñ bi jàngale te loolu ci défi yi ci la bokk mu ngi mel ne diggante lislaam ak jullit yi fi ne fekkante ne da nga ne lislaam ni ko jullit ne rek loolu mooy lislaam mën naa am sax nga xeeb lislaam kon ni lislaam ak jullit ni ñu dundee ni mu soree loolu la murid yi ak ni sëñ bi jàngale ni ñu dundee ni mu soree loolu ci def yi ci la bokk dañ ci ñëw ci kanam kon loolu mooy tënkub baatu murid baat bi ko ñaareel ci tomb bi mooy baatu dëkk te mooy di bu ñu nee taxaddaa comme thème bi dañ ko bind ci arab baat bi arab la waaye mooy dëkk ci wolof ni ko sëñ bi Murtala waxee léegi ci arab li muy tekki mooy. li nga jàkkaar lool nga jàmmaar jàmmaarloog moom te doo ko wan genn ragal buñ ko delloo ci cosaanu wolof mbër yi daanañ ko def dëkk mbër bi daan nii maa ngi jégul nag ci misaal waaye mbër bi daan nii samp ndëndam ci kanam moroomu mbëram jógee fa la ñëw fël ndënd mi loolu muy tekki mooy daf koo défier daf koo dëkk daf ko ne bala ngaa jàll da ngaa jaar ci man soo mbir da nga ko lijjanti bala ngaa jàll loolu mooy lépp lu lay dëkk mooy loo xam day taxaw sa kanam fële laa bëgg dem sama objectif mooy fële fële laa dem am lu taxaw sa kanam ne la bala ngaa àgg fa nag sama mbir man da nga ko lijjanti benn nga jaar sama koo jàll wala nga wër ma jàll waaye il faut nga séq ak man door a jàll loolu mooy li lay dëkk kon lépp loo xam dafa taxaw sa kanam sa digganteeg fa nga jëm taxaw sa kanam te ne la bala ngaa jàll fa nga jëm da jaar ci man ba jàll loolu mooy taxaddi loolu mooy dëkk loolu mooy defi sëñ bi bi mu ne dama bëgg a def defar nit ñi yar leen ci yitte ju tubaab bee ñëw taxaw ci kanamam defiyee ko ne ko bala ngaa defar nit ñi da jaar ci ñun ba jàll ba noppi loolu moo boole sëñ bi tubaab yi mën doon a ñàkk sëñ bi sëñ bi jëflante tubaab yi ba not leen wala mu wër leen jàll door àgg fi mu bëgg a dem waaye mën doon ñàkk ndax defi la ñu woon ci kanamam noonu la deme ku nekk ci ñun tam nag wala mbooloo mu nekk ci ñun tam nag am na lu ne ci sa biir di gàllankoor bu wër boo xam mi ngi sa biir yow mu wóor la ne yow gàllankoor bi sa biir moo la tee àgg fa nga jëm mu wóor la ne gàllankoor bii ne sa biir mooy yàq sa système ci sa biir mooy jax-jaxee say mbir ci sa biir mu wóor la ne kon yow nag bala ngaa àgg fa nga jëm tam lii ne ci sa biir te di la gàllankoor il faut nga jëflanteeg moom door àgg fa nga jëm loolu defi la kon ñaari façon defi moo am defi bii jógee ci bitti di la dëkk te jógee ci bitti ak li lay dëkk te jógee ci sa biir ñaar yooyu nag bu ci mën di doon il faut nga jëflanteeg moom jëflanteeg bi lay jógee ci bitti nag moo gën a yomb fuuf jëflanteeg bi lay jógee ci biir defi bi lay jóge ci biir lay dëkk jóge sa biir loolu moom jàmbaara koy jàmbaarloog moom ndax day laaj nga nangu ne man mii kat am na lu ni sama am na ci man lu ma war a xoolaat loolu ñu ko yàlla may bëriwut nit yàlla daf ñoo bindee nit ñi rek ngay wax seen melokaan waaye yow léegi sa bopp neewaane ci ñun ñu koy waxtaane nga nangu ne man am na ay manqué manqué yu ne sama biir am na lu ma war a jubanti sama biir naa def sama autocritique wal bu tug jàmbaarloog sama bopp nangu ne man mii am na lu ma war a defaraat sama biir ma defar ko loolu jàmbaara koy def te loolu mënta ñàkk ci képp koo xam ne nii dangaa bëgg a dox jëm ci kanam mbooloo mu mënti doon il faut que léeg ñu xam ne war na noo toog ñoom jàkkaarloog seen bopp ne ñun suñ mbooloo mi am na lu ne ci biir loo xam ne il fokk que ñu régler ko pour mbooloo mi dox jëm fa mu bëgg a jëm danañ koy faral joxe message lu bëree bëri danañ wax ne civilisation yi gis ci àdduna yëpp ñu taxaw fi te xëy daanu mbooloo yi nga xëy ñu taxaw yëpp xëy bis mbooloo ma tas daanu la daane civilisation boobee mbooloo moomee jógewul ci bitti ca biir mbooloo ma ca biir civilisation ba ci lay jóge dañ lay wax ne la tabax bu fekkee ngelaw da koo daane du ngelaw la ca tabax bala bu fekkee tabax daa fett ci biir ba xar ñu dëkk ca biir nanguwuñ koo defar ngelaw bu ñëwee ef ko mu daanu ñu ngelaw lee ko daane déedéet tabax bi buñ ko ngelaw laal doon tam day daanu noonu la mel mbooloo yi noonu lañu mel dañuy am jamono yoo xam fu ñu ca tolloo bu leen kenn laalu tam dañuy daanu li ñu di xadaara islam yi mooy civilisation musulmane même bu tubaab yi ñëw doon coloniser réew jullit itam dana daanu ndax àggoon na foo xam mënut doon a taxaw par force da doon daanu kon lii daanee mbir yi ci suñu biir lay jóge lay tax nag bu ñu mën a lor nag mooy ñu teel nangu ne am na lu ne suñu biir loo xam war nañ ko jubanti loolu mooy defi yi nekk suñu biir kon loolu mooy defi mooy lu lay dëkk <clears throat> dox sa digganteeg nga mën a àgg fi nga xam ne nii fa nga bëgg a jëm am na yuy ne ci bitti am na yuy ne ci biir waaye bu mu ci mën di doon il faut nga lijjanti ko door a mën a jàll buñ bëggee joxe nag ay ay ay tegtal ci défi yooyu mën nañu tudd yu bare bari xëy dañuy tudd yenn yi ci des ñu mottali ko ci xel defi bi njëkk wala boog wala boog liy dëkk yoonu murid li njëkk te jàmmaarloo ñun mooy murid seen bopp taalibe seen bopp taalibe murid seen bopp ñooy défi bi njëkk ci yoonu murid bi ñu war a jàmmaar loolu pour régler ko par door a mën a jàll ndax su fekkente nit dafa am pas-pas te moom lim pas xam lim fas xamul lu mu doon mënu koo leeral xamul lu mu doon moom ci boppam gàllankoor lay doon ci tasaare pas-pas boobu te loolu mu nag bu ñu nangoo ak ñu nangu ak ñu bañ ko dafa am ci suñu biir wax naa ko léegi ci commencement bi mooy ñu baree bari baatu murid ya boo leen na woon sëñ bi lu muy tekki duñu la ko wax nit ki nag lam fas te xamul lu mu doon ba noppi di ca dox di ca wax ci xamul lu mu doon moom ci boppam gàllankoor la kon war nañ ko war lijjanti balaa ñoo def lenn kon murid seen bopp ñooy premier defi boo xam ne nii jàkkaarloo na ak murid te loolu bu joxee misaal dafa am ay déggin ay ay ay baat yoo xam ne nii ay baat yu mënta ñàkk la ci murid gi ñu war koo xam bi ci njëkk mooy baatu murid ya mooy lan war nañ koo xam am na lu ñu joxe tuuti leeru ci bopp ñu bare bari waaye tam ci biir murid dafa am ay ponk yoo xam moo ko tënk ci misaal tey ku wax murid mënta ñàkk ab sëriñ akub taalibe bi kon laaj na ñu xam ab taalibe mooy lan laaj ñu xam ab sëriñ mooy lan te te moo ne booy xool dëgg dëgg da ngay gis ne murid yi baatu sëriñ leeru seen bopp baatu taalibe itam leeru seen bopp wala boog ni war a leer seen bopp des naa leer ñàkk ku ñàkk baatu sëriñ ñàkk gu ñàkk leer seen bopp moo tax léegi ñu wutal ko seen nattukaayu bopp tey gox boo dem mbooloo moo dem dañoo am seen nattukaayu bopp yoo xam te la ñuy natt ab sëriñ bu ko joxee ñu ne ab sëriñ la bu ko joxee ñu sëriñ te ñoom nattukaay yooyu ñu teg yi ci bare bari boo ko doon xool boo xoolee sëñ bi moom ni mu jàngaleeb sëriñ mooy ña sëñ bi tudd ay fiir ña koy nattee ba jox leen ko ñoom ne ñoom ay ñooy sëriñ si looloo yow boo ko nattee ci ne ko sëñ bi jàngalee ñoo ñu sëñ bi ay fiir la leen tudd fiir nag mooy koo xam boo duggee ci biir mu jàpp la ba dootoo mën a génn te loolu bari na ci yëf yi léegi ndaw ñi bari na lu mu leen di dal loo xam loo xam dañ koy dégg gis ko ñu defar ko ban la lii mooy ëpp lii mooy njàngaleem si lii nga dem dugg ca biir ba noppi nag da ngay dem ba gis la ca biir bëgg a génn dootoo mën a génn nga tagga témb fi bari na ñoom fañ nekk dañ faa tagga témbe te loolu moo leen fa dugal kon baat boobu leeru laaj na ñu leer ñu koy jëfandikoo ñëpp ñu leeral leen ko bañ xam ko xëy na jataay bi du jataay bu ñu ko war a leerale beneen jataay la waaye ku dellu ci mbirum sëñ bi da nga xam lan mooy ëpp sëriñ ne ko sëñ bi jàngalee nga comparé ko ak ñu li ñuy jàpp ëpp sëriñ léegi ba xam boobaa da gis ne kon déggin wi des naa leer waaye li ci gën a métti mooy day ay melokaan yoo xam ne ni ay nit ñoo ko sos dugal ko ci biir njàng mi waaye dañoo dama dem ba fexe ba ñi nga xam ne ñoo doon sëriñu cosaan yi ñu xamoon leen sax ne ñoom ñooy sëriñ piir daan ko dund ñoom sax dañoo dem ba melokaan yooyu nar leen a nax ba ñoom lañ jàppoon ne ñoom moom war dund ñoom ñoo fas bàyyi fekk gaa yi ci lañ nekk da ci rawanteeg ñoom loolu nag mooy jafe-jafe bu mag bi dëgg buñ demee ba ñun ñi nga xam ne tey ñoom jàppoon nañ ne ñoom xam nañ ko mu leen seen bopp ñu ko daan dund ala laqal ñu dem ba ay nit wan leen yeneen melokaan yoo xam ne nii ñoom ñoo ko sosal seen bopp mu wuteeg li sëñ bi jàngale ñoom ñu dem ba nar a bàyyi lañ nekkoon ñoom di leen fekk ci la ñuy dund loolu nag ci la coow li nekk loolu mooy loolu mooy li ci li ci li jafe bi am te loolu dañ ko gis ne léegi mi commencé di bari ñi nga xamoon démb bërki démb seeni maam seeni baay doon gindee ci yoonu murit léegi ñu baree bari ñoom fexe na daanaka sopp fexe nañ ba gaa yi la ñu nekk ay fiir di rëbb yi ni gaa yi yeneen yi rëbbe loolu nag ci jafe jafe jafe-jafe yi ci la bokk ndax léegi bari na fooy dem xamoon leen ci tasawuf ku nekk xam na tasawuf lim ñëwoon di ko xeex bokk na ca bànneex bu ëpp bokk na ca luxe maanaam li ñuy wax luxe bu ëpp luxe bu ëpp maanaam mooy maanaam taraf maanaam féex féex gu ëpp feex gu féex ci warwaay ëpp féex ci kër gu ëpp féex ci dund gu ëpp yooyu li tasawuf dafa ñëwoon ngir di ko xeex kenn waxul doo dund waaye nag da ngay lu nekk danga nga cey jël la mënta ñàkk ngir bàyyi mën a defar sa ruux léegi nag boo demee ci kër yi ñu jàppoon ne ñoom noonu lañ doon dund léegi nga xool la nga fay fekk ku nekk yaay attel sa bopp ba xam ku nekk boo xam ne la nga fay gis yaa koy attel sa bopp kon loolu ci ñàkk leer googu ci la bokk te loolu bu leerul ci nit ñi nag ñi war a gindee nag bu ñu leerul bu leerul bu leerul ka ñuy du mat a wax loolu dama am ci baatu murid gi ci boppam taalibe bi léegi wax mu ne ak taalibe rek am solo waaye ñu bare bare boo leen sëñ bi lan mooy ak taalibe duñ la tont wala lan lay lan lay tontu dana wuuteeg li sëñ bi jàngale kon bokk na ci baat yi nga xam ne nii yu leeru la léegi nit ci boppam mooy dem ba mu yàgg mu tuddee boppam murit saadax ne man murit saadax la di ko di ko di ko di ko santale boppam nit ñi di ko ci fekk si te xamul ne murit saadax maanaam maanaam baat la boo xam ne nii ñu néew ñoo ci àgg ci mbindi sëñ bi ci boppam bari na koy fonk mu rëy ci yow lool nga di ko dégg ñu rëy ko lool te suñ mosu ko woy baat boobu ñu néew ci mag ñi toppoon sëñ bi ñoom la sëñ bi doon dàkkantale baat boobu kon du baat bu yomb kon bu nee ba léegi ba di ko maanaam def ko lu mu nekk baat bu baat bu yomb boo xam ku mu neex nga jël ko te te te nattukaay ya koy jëlee du doon nattukaay yu am solo addiyee maanaam yu mel noonu maanaam addiyee ju doon wala yu mel noonu rek duñ xam sax foo ko jëlee waaw loolu rek ñu daal la koy ñu daal la koy jox baat boobu wala nga jox ko sa bopp nit ñi nangul la ko loolu tam bokk na ci yi lënt yi lënt kon loolu mooy maanaam defi bu njëkk kon defi bi njëkk mooy i faut ñu leeral murid yi lan mooy ak murid ñoom seen bopp ñu xam ko naka lañ koy dundee ba tax bu ñu ko bëggee tasaare man ko tasaare waaye li fekk leeru seen bopp ponk yi ko lal li fekk leeru ci bopp nit ñi pour ñu tasaare njàng mi dana jafe ngir ñu bëgg murit gi mën a àgg fa ñu fañ bëgg ma àgg fa dana jafe ci ñun xanaa allahuma boog mu doon loo xam mbirum baatin lay doon waaye li nga xam ñun ci mbirum saahir mën cee dox moom il faut loolu ñu leeral ko ba njàng mi ñu mën koo tasaare ko bëgg a tasaare surtout jamono ñu toll nii kon loolu mooy defi bi wala boog li dëkk murit gi ci njëkk mooy taalibe yi seen bopp il faut ñu lijjanti boobu defi pour mën a jàll beneen def defi mooy def defi bi nga xam ci wàllu organisation la aju léegi ñun fi mu nekk nii bañ nañ ko ba da dégg ñaan la murid du am organisation maanaam murid du nosu ba sax boo nosee say mbir maanaam teg ko ci yoon dëgg-dëgg sax dañu jàppale ne yow da ngaa wuuteeg nga xam fexe nañ ba def ci bopp ñu ñu leen murid du am organisation te loolu moom nit ñee ko sosal seen bopp waaye wuute na ak li sëñ bi jàngale lool kon defee ngi noonu am benn bu la dëkk mooy ni ñuy fexee ba organisation boobu nu am ko mën nañ ko xool ci wàllu baat bi kàddu gi nun koy organiser taxawaay mooy rôle yi ku nekk ban rôle ngay taxawee naka la ñuy fexee ba man-man yi ñu coordonné ko effort yi ñu am maanaam wala boog man-man yi ñu am nu ñuy fexee ba coordonné ko ba mu nekk benn nu ñuy fexee ba teftale suñuy priorité maanaam ci lii la ñuy lii lañ ciy teg lii lañ ciy teg loolu lépp bu ñu ko boolee day dugg ci biir organisation kon ci biir organisation war na noo xool nu ñuy nose baat bi kàddu gi war na noo xool nu ñuy nose taxawaay yi ku nekk fi nga war a taxaw war na noo xool nu ñuy nose man-man yi war na noo xool nu ñuy nose li ñuy defar li ñuy taxawal fan la ñuy tàmbalee lu cay jiitu lu cay topp buñ ci jël dañuy gis buñ ko topp doon la mën a jur force bi ci ëpp ci àdduna wala kàttan gi ëpp ci mbooloo mooy kàddu waaye nag na fekk muy kàddu gu nekk benn mbooloo ma gis la ëpp doole si ñoom mooy seen kàddu waaye na fekk muy kàddu gu nekk benn di jóge ci kaw di wàcc ci suuf loolu defe naa ne bu ñu xoolee sëñ bi ni mu ni mu ni mu ni mu jàngalee ni mu ni mu tër la yoonu murit lu yomb xam lay doon joxe nañ ci misaal ay yoon yoon tey li ñuy wax néegu ñax ñenn ñu dugg ci kaas carré wala ba kaas murit nga xam ne këru murit goo dem ñaare da ko fekk noonu mu bindoo noonu la sëñ bi nose yoonu murit maanaam suuf ji day yaatu waaye loo gën di jëm ci kaw day gën di sew. boo demee ba ca ñëpp waxtaan la benn pucc nga fay fekk néegu ñax ñun li ñu ci xam benn pucc lay am noonu yoonu murit tam li ñu xam benn sëriñ la mooy sëñ bi ñi ci des ay jëwriñ lañ kon balgaan yi nga gis néegu ñax ay jëwriñ lañ ci waaye nag jëwriñ it mag kilifa gi mooy pucc ba mag ca ko moom bis bu fa jógee néeg ba kon noonu lañ mës a yëf yi kon nag njëpp la fa la yëfee tàmbalee di wàcc sëñ bi noonu daan doxe bu ma saan bëgg joxe ndigal jëwriñ rek lay jox ndigal ñu wàcce ko ci suuf mu dem mu yaatu waaye genn kàddu moo daan jóge ci kaw di wàcc ñëw ci suuf kon sëñ bi ku nosoon mbir yi la defi loolu ci def yi la bokk kon ni ñu fexe ba nosaat ko ba mu nekk genn kàddu loolu sax Mamadou Fadi dana joxe na ci jàngal na ko lu bare bëri ki ñëwoon ci moom ne ko mbooloo mooy doole mu ne ko na fekk muy mbooloo mu nekk benn mbooloo koy bu ko benn wax dëgg yàlla day néewal doole waaye du joxe doole kon léegi bu ñu nee ba gis na kon kàddu yi jóg ci yoon wi bari na ñiy joxe ndigal bari na léegi ñi nga xam ne nii seen taxawaay moo doon ñu leen di jox ndigal ñuy jëfe léegi dex ñoom dañuy joxe ndigal ndigal yu bari yooyu nag ak kàddu yu bari yooyu di jóg tey jóge fu nekk ci biir moo tax ñu dem ba xëy ba wala boog maanaam raglu gi yoon wi amoon mel ne day wàññi ko raglu gi yoon wi amoon nga xam ne kenn mës koo ñemee ñemee tudd ci teg yenn yi loolu day mel ne day wàññi ko bu njëkkoon ku nekk xam na ne yoonu murit kenn mës koo ñemee tudd ci teg benn yenn kàddu yenn kàddu yi baatu si jëmmi sëñ bi ci boppam kenn ñi mu koo mës a mës a tudd te tegoo ci war ci war lépp nga jox ko ko door koo tudd léegi nag lu am mooy da ngay gis ñoo xam ne nii wax dëgg yàlla daanaka mën ngaa xam ne te wuñ lu am solo sax ñooy taxaw ci digg public publiquement wax lu leen neex ci yoonu murit wax lu neex sax ci kilifa yi murit yi ba sax léeg-léeg ñu àgg ci njobaxtan murit yi wax ci lu leen neex loolu la ko jur mooy kàddu yu bari yi jóg ba tax léegi yëf yi tasaaroo te nag mabda'u farriq tasut ñëpp xam nañ ko mooy maanaam ay nit boo bëggee nguur seen kaw da ngay fexe ba taqale leen mbooloo waxuma kilif nga yilif leen waaye boo bëggee nguur seen kaw da ngay fexe ba taqal leen boo leen taqalee ku nekk da ngay wéet ak moom not ko yilif ko wala boog nguuru ci kawam moo tax loolu ñoom xam nañ ko di ci di ci liggéey bu baax a baax moo tax war nañoo fexe ñun tam défi bi ñu toll war nañoo fexe ba na kàddu gi nekk woon benn nu fexe ba kàddu gi nekkaat benn di jóge ci kaw di wàcc ci suuf ñëpp di ko jëfe bu dul loolu kàddu yi lu mu gën a bari tasaaroo du gën di bari tasaaroo lu mu gën di bari yebel gi gën di bari rôle yi war nañ ko seetaat mbooloo moo xam ñëppay def lépp loolu tam wax dëggal kenn mënu koo xam mbooloo mu mënti doon dañ koy nos dañ naan diw yaay def lii diw yaay def lii yaay def lii ku nekk xam ne lii fii nga tàmbalee fii nga yem ku nekk xam yow yaay kan loo war def ak loo warta def nga xam waaye nag fi làqi ñun ci biir suñu doxoon ci biir daanaka léegi rôle yi xamatuñ ko su ma ci bëggoon jox misaal rek ngaa dugg kër kilifa goo xam boo nee da ngay fekk mbooloo ku nekk day la xasaayu ba dëgg di waaxu te boo bëggoon laaj dara ci kër sëñ koo laaj laaj mën a laajal diw maanaam kenn du la mën a tontu te ku nekk nga laxasaayu boo dëgër di waaxu ci biir kër gi loolu mooy kenn ku nekk xamoo li ngay def maanaam dañuy daaxu dama ko dikk rek waaye la ku nekk waroon nañ ne ku nekk boo duggee ci kër gi boo soxlaa nangam diw moo koy yor yoon wi loo ci soxla diw moo ko yor nga dem ci diw mu wax la ci la mu mu jeex waaye nag mbooloo moo xam ñëppay def lépp loolu te wax dëgg yàlla sëñ bi na sooy doon yëf yi noonu sëñ bi ay jamonoom ku nekk da nga am loo daan def mag ñi li ñu daan bari bari ku nekk am na lu la sëñ féete loon loo xam ne yaa koy def ñii ñooy jàngale ñii ñooy jàngale alxuraan ñii ñooy jàngale xam-xam ñii ñoo yor nekk ci tool yi ñu ne ci ku nekk ba sax ñii duy ndaaye sax am na ñoo xam ñoo ko daan def nga xam ndox ñoom ñooy rooti duy ndaay loolu sax misaal la ci kon war na loolu nafaraat loolu baax ngir mën a def défi ba nga xam ne nii mooy défi lu ñuy fexee ba séddale rôle yi ndax lim jur mooy léegi li ñuy wax hiérarchie maanaam mooy mbooloo mu nekk dañuy wax sullam maanaam sullam yi hiérarchie maanaam mooy ni nii la ñuy totoo ay daraja lay doon daraja lay doon ba àgg ca kaw loolu dañ ko war a léegi nag loolu ñu baree bari respecté duñ ko fi mu ne tey ku nekk yaa ngi jël sa bopp fas ko yéenee yeew directement ci ci xalif bi te loolu amutoon bu njëkk bu njëkk jëwriñ moo amoon ku nekk sa jëwriñ ngay xam am na murit yu mag a yoo xam ne xam nañ leen dunda nañoo ak sëñ bi te mën naa am sax mosuñoo gis sëñ bi te ay murid yu mag lañ seen jëwriñ rek lañu xam sëñ bi am na murid yi mag a mag yoo xam mës a wax ak ñoom seen jëwriñ lay waxal ñu wax ak ñoom boobu nag léegi moo dema dem ba rolam di bëgg a naax saay ci biir yëf yi ndax léegi tey xoolal boo demee tey kër sëñ bi maanaam ci ñuy ziare koo fa gis muy ziare am na sëriñ dafa day warib sëriñ ñoo ko fa kupp ñëw directement ci sëñ bi waa léegi kon nag léegi bu loolu amee léegi ñëpp yeew seen bopp ci kilifa gu mag gi léegi buñ santee jëwriñ ci moom kan lay sant dootu am comme sant comme sant ndax ñëpp léegi wëri nañ ko fa dem fële kon man rôlu jëwriñ lu ñu war a delloo si la gën koo dëgëral samp bu nekk maanaam barab bu nekk kañ fa samp mu nekkoon fa jëwriñ ñu dëgëral ko ba waa dëkk waa koñ ba waa gox ba xam ne kii mooy jëwriñ ji ñuy ñuy jaar ci moom ndigal di jaar ci moom di ndigal di jóge ci moom ci sëñ bi jaar ci moom ñëw ci taalibe yi addi yi jóge ci taalibe jaar ci moom dem ci sëñ bi bu ko defee yëf yi day nos waaye léegi wax dëgg yàlla boo demee ci kër kër kër sëñ bi bëgg faa ziyaare daanaka soxla mënatoo ko faa wax xale yu ndaw yeeg jigéen ñeeg maanaam doo xam yëf yi wax dëgg yàlla lu muy nuru lu muy nuru doo ko xam wax dëgg yàlla nag fi la xeetu loolu manque d'organisation rek la nag mu amul a tur ñu ko mën loolu kon ñu séddale rôle yi loolu defi la ñu xoolaat ku nekk sa taxawaay ak li nga war a taxawee ñu xool nuñ la koy delloo loolu am na ci solo man-man yi ci suñu loxo war na noo xool koy nose li ñu yor ci alal ci man-man tudd junóon naa ko léegi ci tàmbali bi li ñu yor ci alal ci man-man li ñu yor ci boroomi pas-pas yoo xam ne li ñu bëgg mën nañ ko def tey war na noo xool nuñ koy coordonné ba man koo jëfandikoo waaye tey bu mu nee tey li maanaam boo doon lim tey ñu am ay milliards Sénégal maanaam mën ngaa wax ne genn wàll gi wala boog li ëpp genn wàll gi ay murid lañ te moo ne fii ci Touba man ngaa dem ci hôpital bee ñu bindal la fa ay leneen xam ne juróom-ñetti junni jar. saxal di nekk fenn fu dul daa dem ci Caritas maanaam ñoo xam ne duñu sax ay jullit ñu jëndal ma ko ak par rapport ñun ñu yor ci milliards loolu tam loolu dem wax dëgg lu ñu a lu lu mat a loo xam ne nii war na noo xool kon li ñu am ci man-man ndax alal ji bari na mbooloo mi bari na waaye nañ ko nos ba yooyu nga xam ne nii suñu yittee parce que maa ngi jéego ndax yaakaar naa ne li ñu yor ci man-man buñ ko nosoon di ko jëfe ni ñu ko war a jëfandikoo benn murid bii tuum rànk du am ndax li fi nekk xajut ci soxlay murid yi wax dëgg yàlla xaju ci soxla waaye nag xëy na kon nos gi mooy des nos gi dana ci bokk ñu fexe ba ay initiative individuelle maanaam loo xam kenn na koy def ñu fexe ba mbooloo mi di ko defandoo ndax mooy tax mbooloo mi mën koo bokk mbooloo mi lu ñu bokk defandoo ko mbooloo mi mën nañ koo bokk jariñoo waaye lu kenn ku nekk ni coqet def ko moom dong moo koy jariñoo wala ka ko ak moom ñoo koy jariñoo waaye keneen du ca bokk kon nan fexe ba man-man bi ñu boole ko lu ñuy def di ko defandoo mu nekk yëfi mbooloo bu ko defee jariñoo gi nekk benn jumaa ji ñu nekk misaal la ci sëñ bi ba mu koy sos bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko rànguloon ba bu ko jëlaloon boppam engagement boppam mën na ko defal boppam waaye dafa woo ay mbooloo ñëpp murid yëpp dugal ci seen loxo ñu xam ne lépp ñoo ko bokk bu jariñoo gi jafe jotee ñu ñëpp ñu bokk ko jariñoo bu defar gi jotee ñëpp bokk ko defar loolu mat naa xoolaat tey bu ñu demee tey ba li ne ci dëkk bi ci ay man-man ak ñoo xam ne nii waroon nañ koo mën a nos nit ñi dafi jàngee dafi xam ne ñu bëgg xam lépp buñ demee tey ba ay nit jël fii seen doom la daan am safaan ba di am nga xam dañ daan jëlee ndakaaru nit andi ngir mu mokkale alxuraan ci Touba léegi ñuy jële nit Touba di ko yóbbu ndakaaru ngir mokkale alxuraan mat naa xoolaat loolu ñàkk nos la du manqué daara yu manqué ci dëkk bi waaye nag bu nekk am sa daara boo amul daara kon looy def léegi bu fekkoon am nañ daara yoo xam mbooloo ma ko bokk xam ne loolu ñu ciy liggéey waaye war nañ cee gën a taxaw ngir mu gën a nosu kon defi boobu mu ngi suñ kanam li ñu tuddee ay priorité maanaam mbir mu nekk booy liggéey boo bëggee liggéey da nga naan fii laay tàmbalee lii laay njëkk a def lii topp ci lii topp ci lii topp ci waaye su fekkee da ngaa bëgg a loolu lépp am il faut que am ci lu soxla kon ëppal googu ci défi yi ci la bokk te gis ne moom li ko indi bokk na ci réaction boo xam ne nii jàngatuñ ko niñ ko war a jàngat mooy gis keneen ku ëppal rubam mën naa am ëppal jëm si ci yow nga jàpp ne man tam dama ko war a wan ne ko man tam ku ëppal kon ëppal du fay ëppal kon lu mënti xew war na noo fexe ba digg doomu gi sëñ bi jàngale woon tam ci lu mënti doon ci wax ji ci jëf ji ak ci doxin weeg waxin weeg jëflante bi yëpp nu fexe ba digg doomu googu nu nu nu nu bàyyi ko xel te xam ne ëppal moom ëppal mënu koo fajtal nit ki su ëppalee yow nga ëppal ngir fajtal ko danga nga yokk tooyaayu ban bi rek waaye doo saafara lu bari loolu kon beneen la te mooy mooy mooy lu defi bi def yi boo xam ne moom tam mi ngi seen mooy ki ñu seqal adduna bi ki ñu tuddee al yi mooy ki ñu seqal adduna bi te mën naa am sax bokkuñu pas-pas xam ngeen ne jamono ji ñu toll ci li ñu mondialisation maanaam bokk système boo xam ne nii dañoo bëgg a def adduna bépp muy benn yi te yi ci boppam ñu jël ko def ko muy benn léegi am réew yu mag wala boog menn réew yu mag. moo xam ne nii moo bëgg jël ay cëslaayam ay valeur am ay pas-pasam ak yooyu ne lii mooy ay valeur universelle fas ko yéenee teg ci kaw ñeneen ñi maanaam tey nga xam ne xeet yépp dañuy bëgg effacer seen cëslaay dootu am seeni i pas-pas seen i ngëm-ngëm seen i jikko seen i lañ gën ne moo baax lañ gëm ne moo bon lépp ñu jëlee ko fa jël ñoom seen i cëslaay andi ko teg ko ci kaw ñooñu képp ku wuute ñoom nag ci gis-gis boobee ñun la yow da ngaa avancé wut développé da ngaa tardé ak yu mel noonu. kooku nag ñun dañoo seq ak moom àddina bi mooy mooy keneen ki mooy keneen ki ñu seqal àddina bi te mu fas yéenee jëflanteeg ñun ci noonu kooku war na noo xam bu baax nu ñuy moom te loolu sëñ bi jàngal nañ ko loolu dong moo indi woon wuute gi amoon diggante sëñ bi ak colonialiste si ndax sëñ bi dafa tubaab bi wala ba colonialiste dañoo ñëw bëgg fee indi seen xeetu dundin yu bees seen xeetu gisin yu bees bëgg koo remplacer ñun suñuy gisin ak suñuy pas-pas sëñ bi gis ne loolu warta am mu jàmmaarloog ñoom loolu nag moo ñëwaat di lu bees ci suñ kanam ñëwaat nag ci beneen façon léegi ku nekk xam na ne tubaab yi dootuñu indi ay avion de guerre indeetuñu ay char de combat indeetuñu yu mel noonu wàcc di xeex ak yow léegi beneen façon xeex la ñu indi loolu ñu dee xarbu al xarbu dakiya maanaam ab guerre boo xam guerre intelligente lañ koy tudde boo xam maanaam dootuñu jëfandikoo ngànnaay yi ñu xam ay ay ay li ñuy wax arme conventionnelle loolu dootuñu jëfandikoo yeneen jumtukaay lañuy jëfandikoo loolu la ñu war koo xam war cee jàmmaarloo ñoom te loolu dañ ko gën a desaat ci kanam tuuti tom boobu nag liñ ci mën a génne lenn dong la mooy pas-pas bi sëñ bi amoon ba jàkkaarloo ak ñoom ba not leen pas-pas boobee rek moom lañ mën a ngànnaayoo ba jàkkaarloo ak ñoom ba duñu mënal li ñu bëgg ak yitte ju kawe mooy yu bare bari ñu jàpp ne mooy yëf yi ñu xam ne du yëf yi lu baree bari fa ñu jàpp ne fa la yëf yi nekk ñu xam gëm na yëf yi newut foofu yëf yi weesu na yu noonuwaat yi ñu koy natt waaye mbirum yitte ju kawe la yitte ju kawe nag mooy nga xeeb yu baree bari nit ñi xëccoo di ca daw di ca gëstu yow nga gëm ne loola taxulaa jóg am na lu féete kaw loola moo la tax a jóg beneen defi bi dañuy takkaloo ndax dañuy di seen biir beneen defi bi mooy taxawaayu politique ci ñun muy ban taxawaay lañu war a am ci dundu politique bi ci ñuñ séqal loolu tamit loo xam ne nii war nañ cee taxaw jàngat ko bu baax a baax ndax defi ba nga mag la bu ne kanam danoo war a politique wala waruñoo politique laaj la il faut ñu jéem tontu te danga gis koo xam ne nii day taxaw ne la politique nangam wax ci lu bare bare ne léegi ab sëriñ bu ko def sëñ bi nangam ak nangam indi ay layam ba wala ne la loolu maanaam moom sax ci moom dafa araam kenn waru ko def gis koo xam ne safaan ba lay def moom da cay dugg waaye nañ cay dugg du baax bu ko defee lam cay perte mu ëpp lam cay gañe mu jot sëkk ñu xool kon défi politique maanaam maanaam maanaam politique bi ñuy dëkk kon naka lañ ci war a taxawee loolu dañuy jàngataat delluwaat ci sëñ bi ci boppam jàngataat ko ba xool ba xam moom ban taxawaay la amoon ci fànn boobu dana jafe nga dem fenn jukkee fa ne lii mooy taxawaayu sëñ bi ci politique waaye boo jàngatee dunduk sëñ bi ak ay taxawaay yu bare bari yi taxaw mën nga cee génne ne sëñ bi amoon na position politique bu leer naññ te dañ ko layal sëñ bi amoon na position politique kon bu kenn murid gi war ñëw politique ndax sëñ bi amul daaw ko def déedéet sëñ amoon na taxawaay politique sëñ bi dafa doon opposé dafa opposé woon maanaam opposant la woon ndax tubaab yi la tase loon te ñu ñu bàyyi xel ci ne sëñ bi li ko boole colonialiste dëgg-dëgg du woon affaire diine affaire politique la dañoo amoon seen modèle ñoom dañoo amoon seen système boo xam ne ñu bëggoon a taxawal fii ci dëkk bi ci réew mi sëñ bi am système bu mu bëgg a ñu jàkkaarloo loolu rek moo jur yëf yi waaye ñi fi doon julli ngi fi doon julli ñi doon woor a ngi doon woor ñi daan jàngal xaan a ngi alxaan te jituwuñu dara ak tubaab bi am na ñoon sax sax ñoo xam sax ay xarit seeni xarit lañ woon kon li boole woon sëñ bi ak tubaab bi du woon problème diine kese kese waaye problème politique la kon sëñ bi amoon na taxawaayu politique mooy dafa opposé wu woon loolu dañ ci am luñ daa am luñ leeral tuuti ci kanam kon sëñ bi li ko boole tubaab yi taxawaayu politique la moo tax ñu dem atte ko génne ko ab dëkk yóbbu ko jaq seqal ñoom li seqal ñoom lépp ba daan ba daan ba mu daj ci lim ci daj loolu lépp ay problème politique moo ko laloon kon sëñ bi teel naa wane ne moom dafa opposé wu ci li fi si bëgg a def te du ko nangu waaye nag bu ñuy waxtaanee ci opposition gi sëñ bi doon opposé wu moom dañuy dañ koy mën a tuddee opposition bu legal maanaam bu bu dëppoog yoon ndax li ñuy wax nga opposé ak fipp dañoo xaw dañoo ba xaw a jege te bokkuñu fipp baatu wolof la maanaam mooy nga maanaam ñàkk a topp li ñuy wax isyaan madani dafa am muhaarada ci arab ak isyaan madani muhaarada mooy nga wu isyaan madani moom mu ñuy firi désobéissance civile maanaam nga fipp ne li fi nekk bañ naa dootu fi amati loolu aw doxin la sëñ bi nag dafa opposé wu woon waaye nekkutoon ci isyaan madani moo tax mësta nangu tubaab yi mësta nangu seen ñàkk fi mësta nangu tam seen système bi mu fi indi moo ne day li mu ko doon bañ bañ bañ am na loo xam da ko daan séq ak ñoom ci wàllu leen ci àddina dañ joxe misaal nanguwutoon benn loi buy jógee ci ñoom gëmu ko woon ànd ci woon waaye am na loo bu ko masaan bëgg def da leen di bind lettre ne leen dama bëgg def nangam jumaa ji ñu toog bi mu ko bëggee taxawal dafa bind lettre demande autorisation dafa bëgg a taxaw jumaa te tubaab yi la ko adressé te àndoon ak ñoom ci lañ nekk. ba mu demee Mbàkke daal ñu koome ko ko ndar lu waaye ko koome ko xam na ne ji jeng la jubul baaxul waaye dafa dem wuy ji bañ ko attee ndar atte bu jeng boo xam ne kenn du atte sax dañoo bind leen neex ne ko dem lay génne réew mi yóbbu la ca feneen tegu ci baat da ca ànd ak ñoom ca loola bi mu dellusee ku nekk xam ne ne ci mujj gi muy njaareem ñu def ko fi yóbbu ko dañ ko def résidence surveillée mooy diggant bi sañoo ko génn te amoo autorisation génn fukki at ak juróom yi mu def njaareem yépp ci loolu la ko nekk bu ma saan bëgg a génn dem fenn dañuy bind autorisation ne sëñ bi daa bëgg dem barab sàngam te tubaab bi lañ ko adressé kon système bi ngay opposé wu banque na dafi nekk teewut nga mën tënku ci loi yi nga gisee dafa jeng nga tënku ci ba noppi nag di xeex ngir mu jóg fi loolu mooy opposition gi sëñ bi doon jàngale loolu la sëñ bi jàngale lii ànduma ci gis naa ne jaarul ci yoon waaye nag danaa ci tënku ba xeex ko ngir mu jóg fi te képp ku bëgg a soppi dangay bàyyi xel ci lu mel noonu ñi ko tànnte te jaaruñ foofu dañoo échec képp koo xam ne da ngaa ñëw ne système bi ànduma ci dama ko fi jóge force ña ko defoon ñëpp gis nañ ne ñoom jóge nañ fi te lañ doon xeex jógewu fi te sëñ bi moom mi defoon lii jaar fii mu jaar tënku ci lu waa yooyu ba noppi gën leen war na ko fee jëlee lu baree bari moom mucc na ci léegi te ñooñu ñoom muccaguñ ci ba léegi. loolu bu ñu ci doon joxe misaal day mel na rek système bi mi ngi mel ni néeg bu fekkente ne da ngaa benn néeg nga dëkk ci mu néeg nga dem ba mu yàgg gisee néeg bi kat maanaam xajatuma ci waratuma cee dëkk te dëppootul ak sama nekkin kon néeg bi war naa fee génn léegi dañ lay laaj ndax dangay ngay wutu néeg dangay wut ñaari néeg ñetti néeg bi defar ko ba noppi tuxu dem ca door toj néeg bi wala dangay ngay toj néeg bi door a tabaxum néeg bis boo tojee néeg bi te tabaxum néeg donte ñaari guddi loolu ñetti guddi nga fa naan àll ci tumuranke loolu loolu lu ñu xam la bari na réew yu ko tànte yoo xam ne foofu la ñu mujj moo tax opposition gi doon sëñ bi doon jàngale mooy nga bañ li fi nekk ba noppi nag tënku ci ngir xeex ko mu jóg fi loolu lu ñu war a jàngale la ci ci ci ci ni ñuy dunde mooy li ñuy àttali ci bari bari mën naa am dëppoowut ak suñuy pas-pas dëppoowut ak suñuy ngëm-ngëm dëppoowut ak suñuy bëgg-bëgg dëppoowut suñu jubluwaay waaye nag état mooy état état bu xasee taxaw du kenn ñun ñëpp la kon lam am ci loi ak ay sart ak yoo xam moom ay règlement yu mu teg loola dañ ciy tënk même boo gisee ne jubut dañ ciy tënk ba noppi di xeex ngir soppi ko maanaam loolu loolu moo mën a nekk waaye leneen loo def loolu lu ñu war a jàngale la moo tax ci xew-xew bi bi mu amee Sëñ Muntaxa ñu yàlla na ko yàlla yàggal te wéral ko taxawaay bi mu ci am njàngale mu mag a mag la parce que xëy na am nañu bare bare ñoo xam ne ngi di gis di waxtaan ci biir kuy na koy dégg nangam ñu waru ko def nangam ak nangam waaye ku xam état sëñ bi ku xam ku xam état la moo tax mu doxale ni te yàpp naa ne gëm naa ne wala boog yaakaar naa loolu ne ku xamal la mu yéene danga xam ne am na ci yoo xam ne nii gënalu ko waaye nag il faut que dañ ciy tënku waaye nag tënku ci ba noppi di ko xeex ngir mu soppi ko loolu mooy yoon wi sëñ bi jàngale woon muy défi boo xam dafa ne suñ kanam kon gëm ne yoonu murit waruñoo politique loolu war nañ ko xalaataat waaye nag dugg ci te xamoo noo ciy duggee itam war nañ cee xalaataat waruñoo opposé wu tam ngir opposé wu rek bañ rek ngir bañ loolu tam du yoon sëñ bi jàngalewu ko sëñ bi bi mu bañee ba noppi dafa teg lu ko remplacé ku nekk xam ne boo jàngee xasidat Matlabul Fawzayni maanaam projet de société la boo xam ne nii sëñ bi daf koo teg buñ mën a appliqué boo xoolee ni mu doon yare nit ñi ñu sukkandiku seen bopp système la boo xam ne nii képp ku bëgg a soppi da nga ci jaar mooy ñu fexe ba dootuñu jëggaani liñ bëgg ñu mënal ko suñu bopp dana tax ba li ñu bëgg a tegal suñu bopp ci ay loi ak règlement nu man koo tegal suñu bopp te loolu suñ def ko jàngale kon képp kuy bañ la ngay bañ il faut que koy wutal lu ko remplacer kon def politique ci biir yoon wi mënta ñàkk mooy li ma doon ubbee waxtaan wi ne léegi nag kon war na noo feeñalaat suñu bopp suñu poids politique bi ñu am ñu jëfandikoo ko suñu kilifa yi ñu jiitu woon dañ ko jëfandikoo Cheikh Mamadou Fadel si Mamadou Moustapha xëy na ci situation yi dund mënuñ cee jël lu bari waaye Sëñ Fallu bu mën nañ ko waxtaane mu leer nañ Sëñ Amadu Fadil Senghor la jamonoontoon bokkuñu diine bokkuñuy pas-pas waaye daan jëflanteeg moom di ko jàppale ci wet wàllu état bi Senghor di ko jàppale ci wàllu diine ji wala wala boog wàllu jëm doon yëngatu moom muy diine ji te Sëñ Fallu gëm loo woon na Senghor ne ko bis boo la bàyyee nga daan Senghor it gëmoon bis bu Sëñ Fallu bàyyee mu daan loolu pas-pas la il faut que ñu jëflante ñoom ci noonu xamal leen ne ñun ñi ñoo daan loolu nag politicien boo ko wan mu jox la cër moo tax Senghor mës na ñemee def lenn te tàggu Sëñ Fall moo ne bokkuñu woon diine sax nag gannaaw ba fi Senghor jógee sa Abdou Lahad bu ñëwee dégg nag Abdou ku nekk xam na ko wax nag ko sax muy dégg moom ci boppam leeral na ko ne Sëñ Abdou Lahad moo ko fi téye Sëñ Abdou moo ko fi tey loolu loolu loolu ko war a delloo moo tax li wér na ne Abdou Diouf maanaam moo ne bokk président Abdou am nay jamono. maanaam soppi ay ministre sax balaa koo def il faut que mu ñëw wan liste bi Sëñ Abdou Lahad ba Sëñ Abdou Lahad valide liste bi mu door dem loolu jëflante la loolu il faut que ñu delloo si lu mel parce que ñi ñu seqal wax naa ko léegi léegi ay rapport de force la maanaam da ngay wane am ñu jox la sa cër loolu buñ ko daw buñ ko daw ndax mën nga ñàkk te moo fi amoon naka jekk loolu ko war nañ ko xoolaat kon bu ñu delloo ci lislaam lislaam nanguwul nit ko amul position mbir mu mënti doon lislaam li mu jàngale mooy day jaar yoon lépp lu jaar yoon par force da nga war a ànd jaarul yoon lépp lu jaar yoon kenn waru cee ànd mbir mi daa jaxasoo am lu jaar yoon ak lu jaar yoon da nga naan nañ dindi li jaarul yoon ba mu des li jaar yoon ma ànd ci buñ ko mënta dindi duma ci ànd waaye taxaw ne ooma ci ooma ci taxawaay moom du lislaam du njàngaleem sëñ bi mag ñi dem jàngaleem ko loolu defi na waaye nag il faut que ñu xam politique ni ñu koy defee ñu bàyyi xel ci ne politique fànn la boo xam koy jàng di ci def gëstu yu xóot loolu tam balaa ñu cee dugg day laaj nag noonu xam ko xam ci lu baree bari ba xam ne nañ koy jëflante ak ñoom beneen défi bi nga xam mooy bu juróom-benneel bi xëy na bu ñu ci noppee ci lañuy tëje te mooy bi gën a siiw jamono ji mooy li ñuy tuddee ñiy song yoonu murit ñi nga xam dañuy wax ne dañuy attaqué yoonu murit moo xam dañ koy bind moo xam dañ wax muy tom boo xam ne nii mat naa waxtaan ci tekk ak teey te liñ ci wax ñu takk ko ci mu xel bañ cee gaawtu ndax bunt la boo xam ne nii mën naa ubbi danger bu mag a mag suñu biir te am na nuñ koy songe tam nag la muy jur ci safaan moo ëpp la muy jur ci lu ci ci ci la muy defal moo tax ku ciy wax war na loo moytu bu baax ñi ñi nga xam dañoo fanatique ñu ëppal ñu war na noo moytu bu baax ñi nga xam ne nii dañoo ay dogmatique lañ maanaam mooy ñoo xam ne dañoo seen pas-pas dëgër na lool waaye nag dara ci xel da caa néewut ñooñu war nañu bàyyi xel baax baax ndax ñooñu dem dañoo ne suñ biir te tomb bu mel nii bu jógee léeg-léegi dañ ciy wax ay kàddu yu baree bari ba muy jur lu bari bu fekkante nit ki nag dafa nekk nit ku fanatique mooy koo xam dafa pas-pasam teguwul cim xel lenn ci xel néew ca dafa nekk ku ko ëppal léeg-léegi na muy réagir na muy tontoo wala na muy réaction réaction ba muy def léeg-léegi day jur safaan ci biir suñu doxin nit ñooñu ngay gis suñu biir nag mooy waral léeg-léegi ku jóg ñu tuumaal la façon nit ñooñu ku jóg ñu tuumaal la léeg-léeg sax ñu tuumaal la ci loo xam ne doo ci laaloo ci dara waaye nag duñ ko teg cim xel ndax dañuy yàpp ne rek ñoom nii lañ gisee ku gisee wut noonu rek. war nañ laa tuumaal ne la bokkoo da ngay attaqué sëñ bi da ngay wax nangam nangam da ngaa bañ muridi da ngay wax yu moo tax loolu lu mat a teelu la te waxtaane ko ci kii buñ ci doon joxe misaal ma joxe ma loolu la ci misaal tey man su fekkoon tan day kat sama wërd sama wërd may wërd suba ngoon mooy daal sëñ beeg a baax am na tey ñoo ko doon wax Sénégal man leen man de sëñ beeg baax dong laay wërd ñun la yow da yow da xamoo sëñ bi sëñ bi weesu na baax waaw moom weesu baax moom boo ko weesoo loolu loolu ëppal la loolu wax dëgg yàlla kooku gisin boobu maanaam lu dangereux la ci yoonu murit lu ñu war lu ñu war a bàyyi xel am na ku ci nett a yéeme noonu nee ku doon def conférence ñu koy waxtaan loo ci sëñ bi ba mu ñëwee mu def lay taayam daal di commencé waxtaan yi bi mu tàmbalee wax daal ne ah sëñ bi de nit xam ne nii menn mag mu mag mag daal di jóg dagg micro bi ne ko ah leen nee na sëñ bi nit la woon loolu mooy ëppal ñooñu façon yu mel noonu wax dëgg yàlla ñu ngi ci biir te ñooñu léeg-léegi dañuy indi ay yoo xam ne nii la muy defar la muy yàq moo ko ëpp kon il faut que ñu bàyyi xel ci ni ñuy ni ñuy traité ñi ñuy wax ne dañu naan ñuy attaqué yoonu murit nu ñuy nu ñuy jëflanteeg ñoom moo tax ñun bu ñu ko jàngatee dañ koy defi xaaj def nañ leen lu mat juróomi xaaj xaaj bu ci nekk nag nañ war a jëflanteeg moom bokkut ak nañ war a jëflanteeg morom ja bu ci nekk dañ koy tudd tëje ko waxtaanu xaaj bu njëkk bi mooy ñu nga xam ne nii seen maam ba sëñ bii taxawal yoonu murit ñoo ko sëñ bi àndoon ñu ànd kook sëñ bi seen bàyyi judd ci yoonu murit màgg ci ñoom seen bopp ñu judd ci yoonu murit màgg ci ñu yar leen ci yoonu murit waaye nag ñoom dem nañ ba gis ne am na lu dugg ci biir njàngale mi loo xam bokkut ak li sëñ bi jàngale woon ñoom ñu laxasaayu def seen yéene ci ne ñoom lii gaa yi bëgg a dugg ci njàngale mi te bokkut ci li sëñ bi jàngale woon danañ ko fësal ba ñu xam ne bokkut ci li sëñ bi doon jàngale ñooñu bari nañ ñooñu da ngay gis ñu daal leen tuumaal ne ñi dañoo dañoo dañoo arabe dañoo nangam wala arabe sax wala ñu mel noonu dañu leen tuumaal daal ne leen bokk dañoo nangam ak nangam dañoo weddi mag ñi dañoo weddi sëñ bi te ab kuréel lañ ñu il faut ñu xam ne ñu jëflante ak ñoom ñoom dafa am ni ñu war a jëflante ak ñoom daañu ci ñëw ci kanam am na ñoo xam ne nii ay nitu boroomi xam-xam lañ ay professeur de l'université lañ daal ay universitaire ay universitaire lañ manaam ci jàngukaay yu mag yi fa la ñuy yëngutoo ñoo ne man mën na leen xaaj ci seen biir ñaar am na ñoo xam ne nii bu ñuy jàngat yoonu murit danga koy jàngat en tant que phénomène social phénomène social nag mooy moo xam boo koy jàngat danga koy melal na nga ko gisee na ko gisee ñu koy dundee noonu noonu nga koy waxee te ku ne xam ne ne yoonu murit ni mu ngi koy dundee ñun nii boo ko waxee noonu rek ki xam li sëñ bi jàngale danaan la yow da ngay sosal sëñ bi sëñ bi waxul loolu loolu benn groupe lañ. beneen groupe ba ca des mooy ña nga xam ne nii dañuy jéem dellu ci li sëñ bi doon jàngale ca cosaan la fës ko yéenee fesalaat ñooñu dem ku nekk xam na ne boo andee la sëñ bi doon dëgg-dëgg boo ko comparé ni ñuy dund ñun tam day wuute bu ko defee ñu ne yow tam da ngaa contre ñuy dund da ngaa daal ngay dal ci ko yoonu sëñ bi loolu ab groupe lañ kon ñooñu il faut nga xam ne ñu jëflante ak ñoom kon ñooñu il faut que ñoom dañu xam ne ñooñu ñooñu ab group lañ mooy ñi nga xam seen ay borom yu xam-xam yu kawe te am lu ñuy waxtaane seen biir te séddal leen ñaari xaaj yooyu am na nu ñu war a jëflante ñoom ñetteelu group bi mooy ñi nga xam ne ñi ñoom dañoo xamul dara ci yoonu murit ba noppi xëy na am nañ waxukaay wala boog tegal nañ leen waxukaay nuy wax di jéem a ci yoonu murit ba wax ca loo xam waruñ koo wax ci te ak ñàkk xam moo leen ko yóbbe ñu ne leen da daal ci kaw murit beneen groupe bi mooy ñi nga xam ne ni ñoom jàng nañu lislaam ba xam ko jàng nañ tasawuf ba xam ko mën naa am sax am na fuñ bokk ci ngiri tasawuf yi waaye nag yàlla dafa def seen xool bëgguñu sëñ bi bëgguñu murid yi loolu am na ba tax ñuy jëli kàddu di ko teg ci kaw murid yi ñooñu dem am na nu ñu war a jëflanteeg ñoom juróomeel groupe bi mooy ñi nga xam ne nii ñoom dañuy toog rek yor sa téléphone bii di manipuler wala ngay def yu mel noonu ba mu jékki-jékki rek maanaam benn xalaat ñëwal la nga bëgg a siiw rek nga ne naa ko bind daa koy bind daa koy posté di wax lu doy waar daal di posté sànni ñu publier ko bu ko defee nit ñi topp tey commentaire te yow sax mën naa am bu ñu ko toppoon ba mu sës doo doon ko am solo loolu tam groupe lañ boo xam ne nii war nañu xam ne kon juróomi ngi noonu ci ay pàcc juróomi groupe ngi noonu yoo xam ne nii bu nekk war na noo xam na ñuy jëflante ak moom su fekkee ñëpp ñëpp dañu doon tontu li mooy jur safaan bi ab safaan day ñi nga xam mooy groupe njëkk bi te mooy ñi nga xam ne nii ñoom danoo bokk ci judd ci yoon wi seen maam bokk ci ñi sos yoon wi wala bokk bokkoon ci ñi àndoon suñ bi muy sos yoon wi ñoom ñu judd ci ñu yar leen ci bañ xëy nekk ay mag dem na ba gis ne loo xam am na loo xam jàpp nañ ne wuute naag li sëñ bi jàngale ñu bëgg koo leeral ñooñu dañu leen war a déglu ñu ñu war a déglu lañ mooy mooy wa shahida shahid min ahliha loolu mel noonu ñu war leen a xool ba xam la ñuy wax waxtaan ñoom ba xam nuñ fuñ ko teg ak nañ koy waxee waaye nag su fekkee dañ daal attaqué rek dañuy attaqué yoonu murit daal leen di ber dañuy perte ñoom lu baree bari tey am nañ ay kilifa yoo xam ne nii xam nañ leen yoo xam tey waroon nanoo mën a jariñ lu baree baree bari yoonu murit ci wàllu xam ak wàllu gëstu luñ ci mënoon jariñ ñu mën koo jariñoo te mënuñ koo jariñoo ndax ber nañ leen ne dañuy dañoo dañoo contre sëñ bi te fekk na ñoom kenn mën leen génn ci yoon kenn mën leen jegéen ndax ëllëg si man te xew ñoom bu ñu faatoo tam Touba dañ leen fii la leen denc Touba gi la ndax kenn mën leen génn ci yoon kon ñoo defe naa ne jéem leen a xool déglu la ñuy wax ba xam am na fu mu déglu am fu mu déglu bu fekkee daa fu mu déglu nag ñu nangul leen ko ah ndax ñu nangul leen ko ndax fekkee dañoo gis loo xam leer nañ lii wuute naag li sëñ bi doon jàngale te mi ngi commencé siiw ci biir njàngale mi feeñal ga wàññiwu dara ba ko war a xam-xam ko loolu dañ koy nangul waaye nag jékki-jékki rek ber leen ne leen yéen bokkatu leen ci fi ndax da ngeen da ngeen wax lii ak lii loolal dañ ciy jural dañ cey perte loo xam ne nii waroon nañ ko mën a jariñoo beneen kuréel gi nga xam ñoom ay universitaire lañ ñooña ku nekk xam na ne ñooñu ay gëstukat lañ gëstukat nag mu am mbooloo ñaare ñooñu lañ ci mën a delloo mooy ñu fexe ba forme ay gëstukat yu mel na ñoom ñuy toog fa ñuy toog di waxanteeg ñoom di talloonteeg ñoom ci yoon woo xam ne nii ñoom dañ koy xam bu ko def ñoom lañ leen di wax ñoom dañ koy daal di jàpp ci maanaam directement ndax dañ koy nangu ndax ñooy dañuy xam ne ñii seen i nattangoo lañ seen naw lañ ëpp luñ leen ci genn fànn te mën nañoo wax ak ñoom te lépp lu ñu wax mën nañ leen a tontu kon formation la laaj ak xóotal njàng mi ak xóotal gëstu bi bañ am ñu mën a jàmmaarloo ak ñooñee buñ bindee ñu bind buñ bindee téere ñu bind téere buñ defee déclaration ñu def déclaration buñ waxee ñu wax buñ toogee ñu toog ak ñoom fas yéenee buñ layee ñu lay ba kere ñuy gis ku ci yey morom ci loola yoon la woo xam ne nii yàgg na ci lislaam ñu yàgg koo jëfandikoo ñu ko daan tudde munaaza loolu yàgg na ci dañ bàyyi xel nag ne ñooñu sax la ñuy waxtaan li ci li muy génn li muy génn cadre université bëriwul ñaare ci seen biir lay yem ndax ñoom ab groupe lañ maanaam ñu nga xam ne ay groupe lañ boo xam daanaka seen groupe bopp lañ la yoo xam ne bu ñu ko bindee ba noppi dañ koy roof ci ay dañ koy roof ci bibliothèque rek maanaam ña fay dem dong daa ñaari daanaka ñu ëpp ñu koy jariñoo kon ñooña seen jaww bopp lañ yor boo xam ne ni dañuy am ñu mel na ñoom ñu leen di fekk foofa di waxtaan ak ñoom di leen gindi ci sëñ bi di leen tontoñ ak ñoom ba convaincre leen ndax borom xam da koy convaincre ci xel waaye am na nit ñoo xam ne fi nekk nii boo leen doon rey itam ci force ñoom lañ wax tax ñu bàyyi waaye mu jarat nga toog ak waxtaan ak ñoom indi leen argument yu leer nañ ñi ba mu leer seen bopp lañ nekkoon dañ koy bàyyi buñu dee borom xam dëgg-dëgg jàpp nañ koy daal di bàyyi fekk si na ci yow xam ne li nga wax yoonu maanaam kon ñooña doole du jëf leen teeg ñoom xel ak xam-xam mooy jëflante ak ñoom bu dee ñetteelu categori bi mooy ñi nga xam moom dañoo xamul dara ci yoon ñooñu itam fi laqiiqa dafa am lu ñu war a jëflante ak ñoom ñooñu fi mu nekk nii duñu leen duma duñu leen def dara nañ leen fexe ba xëcc leen jàngal leen njàngaleem sëñ bi ci njàngale mu tegu ci xel di leen ko leeralal ba mu leer seen bopp ñu ci bari ci ñoom mën nañoo wàññi ko booba am nañ ci misaal mu leer nañ mooy kay fekkoon yéen sallallahu alayhi wasallam ci biir jum ba jàkka ja ñu ne ñu ne ku jógewoon ci àll ba la ñëw xamul dara ci diine xamul dara ci yenn yi ñëw ñëw ñëw ñëw ñëw am lu mu def ci biir jàkka ji anam tuur ndox ci biir jàkka ji saxaaba yi fi nekkoon bëgg a jóg bëgg a jëflante moom ci dooru dóor ko yonent leen bàyyi leen nañ ko leeral mu woo ko mu ñëw leeral ko nekk kat nangam ak nangam fii jàkka la wax ko lim yeyoo te la jaaree dugg ci lislaam loolu loolu loolu am njàngale la moo xam ni war nañ cee mën a jaar ci di jëflanteeg ñi nga xam ne ni danoo xamut sëñ gi ñu leeral leen ko am njàngale moo xam ne nii day tegu ci lu leer nañ boobaa mën nañ cee jël ñu bare bari récupéré nañ bu dee ñi nga xam ne nag moom xam nañ ba xàmmee waaye ñëpp xam nañ yàlla def ñoom ab cofeel seen digg ak murit ñooñu tam bu xuloo ñoom bu xeex ak ñoom nañ leen xamal ne duñ seen seeni noonu ñoo ngi yéen ñoo bokk diine gàtt gàtt ñëpp ay jullit jullit kon jullit jullit mën a bañ bañ moroom itam waxtaan la loolu waxtaan la laaj bañ leen wan wan ne ñu bañ bañ bañ loolu loolu loolu tontu am sam sam nañ leen xamal ñun ak mbañeel boobu suñu diggante yéen seen i kilifa dañuy leen ay kilifa leen def yéen seen seen bopp tam kenn mbañeel boobu suñu diggante wax wax leen tam li suñu di jàng ci fànn googu te it bàyyi xel ci nag ne ñoom ñoo ñooñee ak mbañeel ak seen seen seen bi saa yu xëyee dañuy gis ñuy gën di avancé loolu rek tontu loolu nag bu ñuy wax dañ leen di bàyyi ñuy gis waaye li ñuy wax ak ñoom di ko jëflanteeg ñoom na doon loo xam ne dina xamal ni ak noonoonte waaw bu ñu bayee ñu bu ñu leen bañal loolu dafa naa bu ñu ko bàyyi bu ñu ko defee ñoom itam ñu bare bare ci ñoom war bis dana ñëw ñu wàññi ko xam ne ñii jëflante ñoom ñoom ni ñuy jëflanteeg teeg ñoom beneen juróomeel ñi nga xam ne moom li ñu te ay réseaux sociaux yi te muy loo xam ne ñun dañ ciy passé temps bu baree baree bari di leen tontoog di ko discuter maanaam nga xam ne daanaka jataay boo toog diw xanaa déggu leen diw la wax démb ci la mu posté waa ji la wax ca youtube bi nangam ak nangam nga xam dañuy jël énergie bu bëree bëri di ko def te loolu jëru ko maanaam ñooñu dañoo jër te tontu tontu ndax ndax tontu leen mooy may leen lañ bëggoon ñoom ñoom lu ñu bëgg mooy ku leen tontu ma ñoom ba nombre de vues yi ñu am ci seen vidéo ba ñuy posté mu yokk ndax ku ne xam ne loolu dañ ci commerce léegi loolu il faut ñu xam loolu loolu dara maanaam nit ki da koy def ngir ña koy dugg ci maanaam vidéo bi gën a bari ba tax lam cey gañe mën a gën a bari ñooñu duñ leen ko may kon ñooñu dañuy jël tontu dañ bàyyi xel ci xam-xam dëgg dëgg dëgg moom amu ci kenn koo xam ne nii foofu ngay dellu sa delluwaay ñiy gëstu xam-xam moom seen du du du wala boog du ay post yi ñuy posté vidéo wala audio bu ñuy posté wala yu mel noonu nga di ko féexale seen xol ak mel noonu waaye ci kenn koy jàpp kon ñooñu jëruñ passe temps boo xam ne dañ yàq temps te li ñuy yàqal de bëgg a bari tontu gi loolu daf ko jërul kon ñooñu moom da leen di bàyyi ñuy wax ngay def li ngay def te kenn mën leen dee wax nag ndax fi ne am yu bari bari ñoo xam ne nii fan yi nekk sax mën noon nekk fu sore sore foo xam nag Sénégal lool lool te te boo demoon dàgg ci ñoom duñ doon nit ñu am solo sax duñ doon nit ñi ñuy déglu duñ ñu am solo ñooñu nag jëruñ passe sa temps di ci def yenn kii kon loolu mooy juróomi xaaj yi ñu ko xaaj xëy na bu nekk ci ñoom ak ni ñu war a jëflante ak moom kon daal li ñuy bañ foofu rek mooy li ñuy wax ab taxaamul bi misli maanaam ñu moytu fu ñu toll ñuy moytu jëflante ci nit ki nit ku ma wokk ku xori la loolu du jëflante bu am solo nit bu la wokkee te wokk laa wóoru laa wokk donk ko daan nit boo wërta wokk nit bu ko wokk leeral ko ba bu ëggee dootu la wokk waaye nag ñu bàyyi xel ci ne stratégie de guerre mooy nit ki fexee la ba sa manin bu la ci génne yóbbu la ci maninam nit ku nekk boo seq ak moom jëf bu fexee ba génne la ci sa manin yóbbu la ci maninam dalay gàññe ci lu gaaw a gaaw moo tax nun liñ nu yare nu xam ko muy teggin yi sutura si maanaam wax ju rafet ji waxin wu te yar wi loolu nan fexe ba buñ ci kenn génne ndax am na ñoo bis bu ñu xëccee ba dugal ñu ci jokkalante kàddu yu ñaaw daañu la wax kàddu gu ñaaw goo xam ne yow da ngay jaral na la xaru maanaam faatu moo lay gën a dégg kàddu googu te boobaa pertement lay doon kon suñu Murtada noo ngi yamale kàddu gi foofu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa ah, jërëjëf waxtaan wi am na solo lool niñ ko junjee woon ci tàmbale bi doon wax ne ñi ngi sàkk ñépp ñi nga xam ne ñi ngi koy topp te dégg tomb boobu ni ñu ko tuddee ñu bàyyi ko xel bu baax a baax yaakaar naa ñi ko teewlu ñëpp gis nañ ne tomb bi nga xam ne Serigne Fallou. leeral na ko fii tey jii day loo xamante ni yaakaar naa murid yëpp wala boog ñi xam-xàmmee ñëpp seen waxtaan la buñ toogee léeg-léeg ci biir jamono ci biir jamono da nga dégg ñuy jàmbat yu bëree bëri ci jafe-jafe yi nga xam ne taxaddiyaat yi nga xam ne wax nga ko fii te muy lu nga xamante nii yoonu murid mi ngi jàngoonte ak moom kon day waxtaan wu am am solo woo xam ne warees na cee bàyyi xel bu baax a baax boo xoolee sëñ Fallou mi ngi ko tàmbaleek ñun ci tamxit boo xam ne. daf cee wone ne yàlla ci boppam moo bindee àdduna noo xam ne yi fi nekk yépp dañuy jaar ci ay atuwaar dañuy jaar ci ay ay jamono yoo xam ne léeg-léeg ay soppeeku day am mbir day tàmbale dem ba yàgg la laneen lu ca mu amuk soppeeku maanaam laneen loo xamante ni bokku ci woon ñëw nekk ji bu ko defee te loolu tax ko woon a jug kon faw mbir moomu ci boppam war a jug nag xoolaat moom ci boppam nan lay def ba dellu ca cosaanam la nga xamante ni moo doonoon jël bennam loolu joxe na ci ay misaal yu bëree bëree bari ci maanaam évolution yi nga xam ne mooy am ci doomu aadama yi ak ci mbooloo yi ci jamono kenn ku ne xam ne ne jamono ju ne euh, wala ci jamono yii ñu nekk ay ay azamaat bari na ci ay crise bari na ci ni mu ci joxe ay misaal adduna tàmbali woon noonu adduna li mu tàmbaloo woon mooy nit ñi di dund ci jàmm waaye ñu dem ba yàgg nga gis nit ñi di am ay jafe-jafe yoo xamante ne ni euh, doonul woon yoon muy am mu joxe ci misaal ci jamono jii ñuy dund danga gis ne danañu fekk nit ki nga xamante ne ni mi ngi si jàkkaam di julli ñu jël bakkanam wala ki nga xam ne mi ngi jàngale ci biir école am wala ci biir daaraam ñu jël bakkanam yooyu yëpp di ay euh, soppeeku yooyu am yoo xamante ni day wane ne am na lu am loo xamante ni amutoon maanaam mbir mi ngi doxee noo xamante ni ah, deme demewutoon noonu loolu danay am ci nit ñi danay am tamit ci nature bi ni ko yàlla bindee day dema dem ba yàgg nga gis yi fi jaar yépp ci mbas yi nga xamante ni jaar nañ fi ak guerre yi nga xamante ni jaar nañ fi indi ay soppi yooyu nag saa su amee dafa am ay soppi yu muy indi ci àdduna ci côté boobu mu lay taayal la waxtaan lu am am solo la maanaam ñun ñi ngi dund ci jamono joo xamante ni nii faw ay soppeeku dana am ci kanam soppeeku yoo xamante ni yow ngay jenn jëmm wala ngay mbooloo te fii mbooloo mi moo ñu moo ñu soxal muy mbooloom yoonu murit faw ay soppeeku am yoo xamante nii bu yoonu murit taxawaatut taxawaay bokk ba nga xamante ni moo doonoon taxawaayu cosaanam bu moytuwul rek dana sooxe ni mu ko waxee léegi bu moytuwul li ñuy wax saxaar gi dana dem dana dem bàyyi la fi rawatina nag euh, situation bii nga xam ne moom la ñuy dund fi mu ne nii muy jamono yi ñuy dund lii ñuy wax pandémie coronavirus nga xam ne. adduna jëpp a taxaw tam junj ko wax ne mësee suta fàttaliku ci adduna foo xamante ne nii moom jafe-jafe crise àgg na ci ñu taxawal adduna bépp tey ji benn benn avion naawatut frontière yëpp ñu tëj ko yi liñ liñ miinoon mooy mu am ci ab diggante ñu ne réew sàngam wala continent sàngam kat am nañu ay jafe-jafe ci nangam ba tax na taxawal nañ kii ba waaye tey jii mu mu daj àdduna jëpp ba kenn mënta ta dem fenn rawa yemul ci frontière waaye ci sa biir réew mi nga dëkk sax diggante région yi ñu tëj ko tëj diggante dëkk ak dëkk ba daanaka àgg nañ ci tëj nit ñi ci seen biir kër yi li ñuy wax confinement bu même bu fekkante ne réew yi euh, wuute nañ ci loolu lépp lan lay tegtale day tegtale rek ne am na ay soppeeku yu ñëw yoo nga xamante ne nii ah, faaw mu laal nit ñi faaw tamit mu laal mbooloo yi ndax bu kuy topp information yi da gis ne réew yëpp ñu ngi tàmbalee di waajal seen bopp. rawatina réew yu mag yi ñu ngi tàmbale di waajal seen bopp ci nan la ñuy def ginnaaw bu mbas mi jàlle nan la ñuy taxawaatee ci ci wet yu ne nag ci wet yu ne li ci gën a not ñoom côté économie la ñuy wax waaye da ngay gis ne ci wet yu bëree bëri ndax mbas mi wan nañu ñun rawatina dëkk yi nga xamante ni ñoom la ñuy wax les pays de tiers muy réew yi nga xam ne dañoo néew doole daanaka ñëpp ñi ngi tàmbale nag di poser ay question di wax ne ah lii kat buñ ci jógee war nañoo soppi aw doxalin ndax kat ndekete adduna bi niñ ko doon doxale ak ni mu waroon a doxee doonul noonu ndax ñëpp gis nañ maanaam mbas mi dëgg la li ñuy wax euh, mënees na ko tuddee euh, ni'matun fi tey niqma metti na waaye buñ xamee ni ñuy jëflante ak moom buñ ci génnee danañu jural njariñ lu bëree bëri ndax bëri na yoo xam ne dañ ko jàppoon ni nii la war a doxee te tey jii wane ne na warut a doxee noonu ay question yu bëri ay masala yu bari yoo xam ne nit ñi daan nañ ko jàmbat di wax na warta a demee nii am ñaneen ñu taxaw ne nii la war a demee tey àdduna jox na dëgg ñi nga xam ne waxoon na waroon na warta wartoon na demee nii ci misaal suñu réew mii di Sénégal niroo ceeg réew yu bari ci réewu Afrique yi li ëpp ci seenu dund dañ ko daan jéggaane te moo ne de yàlla jox na leen luñ ko mën a defee fii nii tey jii wane bi ñu tëjee àdduna bi yëpp wane nañ ne lii bu woyee tuuti rek wala yaasu billaahi taala kon war naa tax ñu taxawaat buñ jugee ci lii teg ay tëralin yoo xamante ne ni bu ëllëgatee bu lu mel nii amee du demee nii ci kaw loolu nag biir tarixal muridiya ci boppam moom itam mi ngi dund ci jamono ci biir azamaat yi yépp dundin woo xamante ni am na lu fi nekkoon loo xamante ne ni tey jii bi liy xewee wala boog def na fi lu nga xamante ne ni bokkut ak ni ko sëñ bi bëggee woon ba tax na yii yëpp bu ñu ci génnee bu ñu delluwaatut ci la sëñ ba euh, tëraloon bu soobee yàlla boo moytuwut danañu am ay jafe yu bëree bëree bëri ci tàmbale gi rek ngir dugal ñu ci moo dox bi rek muy tamhid boo xam ne bu leer naññ la won la ne na yow mi ne ci àdduna dafa am noo war a doxee am noo war a mel ndax yàlla dafa bindee àdduna noo xamante ne nii boo taxawul taxawaay yooyu faaw yow yaay gaañu ndax yàlla moo bindee moo bindee noonu bu fekkente ne dégg naa bu baax sañ bi ni mu doon ni mu doon dugalee euh, ni mu ñu doon dugalee ci biir ci biir ci biir waxtaan wi waaye nag mu tënk nag jafe-jafe yooyu nga xam ne moom la yoonu murit di jànka di jàkkaarloo laataa mu ci ñëw mu waxal ñu lan mooy muridiya bu ñu waxee yoonu murit ci boppam lan lañ ci jublu mu tënku tënk bu leer boo xam ne ku dellu ci mbindum sëñ bi fekk ko fa muy ñu nekkul ne ñun ñoo war a wax lan mooy murit ñun ñi nga xam ne dañoo wax ne ay murit lañ wala ñi nga xamante ne ñi ngi ci bitti sax ñoom du ñoom ñoo war a définir al muridiya muridiya ki ko woote kooku moom moo ko war a définir mooy Cheikh Ahmadul Xadim te leeral na ko wax na mooy lan ñu képp koy gëstu te amoom xel tamit da gis ne maanaam lu leer naññi la lu leer naññi la Sëñ Tuubaa tënk ko ci ne al imaanu bi tawxid al islaamu bi fiq ak al ihsaanu bi tasawuf yoon la wax ne dafa tënku ci gëm yàlla jaa di ko jaamu ci ni ko lislaam tërale waaye nag teg ko ci anamu rafetalin woo nga xamante ni du bàyyi dara léppay rafet mooy tasawuf gi nga xam ne euh, lu lu xóotu xóot la lu lu yàgg lu lu yaatoo lu yaatoo yaatu la léegi nag jafe ji jafe-jafe yi nga xam ne moom la yoon woowu di taseel te mu yoonu murit nga xam ne sëñ Tuubaa bi ko ni mu ko waxee bi ko ko ab tubaab laajee leeral ba mu ko ca leeral mooy loolu wax ko ne day yoon woo nga xamante ne ni ci gëm yàlla la tënku ak jaamu yàlla te rafetal jaamun wi ci jaamu yàlla ci max naa yi mu tënk yëpp waaye mu yoon woo xamante ne tam li ko tax a jóg mooy defar nit defar yaramu nit defar am xelam defar ak ruuxam ba mu amal njariñ boppam amal njariñ fi muy dund amal ko amal ko àdduna jépp léegi nag jafe-jafe yi nga xam ne moom la yoonu murid di tënk moom daf ko indi ci kaw ay ay laaj te muy muy méthode bu am solo muy ay laaj yoo xamante ne ni buñ ko tontoo danañ mën a tontu ja danañ mën a jàkkaarloo ak dëkk yi nga xamante ne nii mooy dëkk yoonu murit boo xamante ne ni tontuwuñu ko nag booba waa li muy la mooy yoonu murit boo moytu dana dund ay jafe-jafe yu bëree bëri yu mel noonu nag bu ñu ko waxee ci ñenn ñi baat yi mën naa xaw a rëy ci ñoom waaye jërul muy rëy buñ ne yoonu murit mën na dund ay jafe-jafe mi ngi koy dund sax ndax lislaam ci boppam mi nga xam ne yoonu murit du lenn lu dul beesal ko lislaam ci boppam mi ngi dund ay jafe-jafe yu bëree bëri dafa am bis ma ci waxtaan ak benn genn kilifa ci waa dëkk bi mu ne ma yu bëree bëri dañ koy wax di ko wax di ko teg ci ak daanukat rek nan mënta am mu ne ma ana alxilaafa al islaamiya li fi yent bi fi yentu salaam jógee Seydina Aboubacar wuutu ko Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Aliou ca la jeexee fa yem bañ fa bañ ca jógee lépp dafa tasaaroo la ko def mooy dañoo wàcc yoon wi dañoo wàcc yoon wa nga xamante ne ni moom lañu waroon a jaar kon kenn warta wax ne yoon wi amuti jafe-jafe dëgg wér a wér dafa am ay jafe-jafe te jafe-jafe yooyu dañ ko war a dañoo war a jàmmaarloo ak moom ni mu ko leeralee ne eh, taxaddi bu ñu ko waxee baat ci baatu arab mooy li nga xam ne dafa ñëw taxaw ci sa kanam bëgg laa tee dem te kenn ku ne xam ne yoonu murit aw yoon la boo xam ne Euh, natiiram maam ni mu bindoo day luy dem ndax ab woote la boo xam ne dafa jug ngir defar àdduna kon dafa war a dem lépp lu taxaw ci kanamam bëgg bëgg ko tee dem war naa seet anam gu muy jàkkaarloog loola ba jàmmaarloog moom ba wër ko ba dem mu joxe ci ay misaal ni nga xam ne Serigne Touba noonu la def bi mu jugee rek woote yoon wi ci kanamam ay taxaddi yu bëri taxawoon na fa mu bi ci gënoon a fees doonoon tubaab yi donte lu doon tubaab yi dong ndax ñim jamonoonte rek dégguñu woon loolu waaye teewul mu def taxaddi waaye tubaab yi nga xam ne nag ñoom ñoo indi woon masron ndax suñ tubaab masron la indi maanaam projet de société la indi luy defar àdduna lay indi am ñoom fi nekkal ñoo xamante ne ni bokkut ak ñoom gis-gis muy tubaab yi ñu bëgg a gàntal aw yoonam waaye dafa jug taxaw jàmmaarloo ñoom ni mu ko leerale ne di mooy lan maanaam yoonu murit war noo ñoo jug jàmmaarloo ak dëkk mooy jafe-jafe yi taxaw ci seen kanam bañ bañ ñu dem te bu buñ ci ragal dara buñ ci yox yoxi dara ni nga xamante ne ni suñu sëriñ bu tedd bu baax bi noonu la ko noonu la ko defe woon ci ak njàmbaaram ak ci xam-xamam waaye loolu lépp nag da ko da teg ci xel ak nangu dogalu yàlla ci la ko teg kon mënta ngir ñu mën a def loolu faa war ñu jaar fi sëñ bi defoon fi fi sëñ bi jaaroon kon daal ñu xam ne toll nañ ci jamono boo xamante nii buñ ci jógee xat yi am mënta ñàkk maanaam faw yëf yi warut a doxe nam daan doxee faw ñu muraajaa yu bari yu bëri yoo xamante ne nekkoon na ci yëf yi te demutoon demewutoon noonu te yu bëri waral ko la ca gën a leer suñ bi suñ fàllu leeral ko mooy xitaab bi nga xam ne mooy am ci yoon wi mooy discours bi ñu jàllale ci yoonu murid bi dafa sori lool lool man ci sama setantal ak yu ñu bëri xitaab bi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa doon jàllale ak xitaab bi nga xamante ni ñu ko fi wuutu woon xalifaam yi tamitam ñoom lañ doon ñoom lañ doon jàllale kon mënta ñàkk xatiyan am bu ñu jógee ci lii ñu delluwaat ca usul ya maanaam ca euh, fondement yi nga xam ne ci la ki nga xam ne moo sos yoon wi ci la ca ci la ko fonde woon loolu nag nan lay mën a amee faaw ñu tontu laaj yi ci tënk rek xam naa duñ mën a jaaraat ci lépp waaye waxoon na ne maanaam bu ñu fii ñu jëm ci kanam ndax xitaab bii ñu yor ni ñuy waxee ci yoonu murit xitaab boobu mooy continuer wala dafa war a soppeeku yaakaar naa ne dafa war a dafa war a soppeeku yaakaar naa moom mooy mooy mooy tontu li bokk na ci laaj yi mu laaj itam li tax ñi nga xam ne ñoom lañu bokkal nekk ci réew mi moo xam ay jullit lañ moo xam duñ ay jullit gis-gis bi ñu am ci yoonu murit gis bi gis-gis bi ñu am ci ñun ba jàppe ñu ñoo xamante ni dañoo jàppee seen bopp ñoo xam ne tënkuwuñ ci loi maanaam lu leen neex la ñuy def te loolu booy dox ci dëkk bi danga koy gis am na ñoo xam ne duñ la ko ñemee wax saraaxatan ci mu leer naa ñi waaye dana gis ne danañ la junj ne yéen dafa mel ne da ngeen yoru dëkk boo xam ne seen yëfi bopp ngeen yor da ngeen ne ci réew mi lu ngeen bëgg ngeen di def lu leen neex ngeen def te kenn mënu ci dara danañuy léeg-léeg dañuy jéem di ko boros masalan tey ji xeetu oto yi ñu fi jaay ci dëkk bi rek dana bëri ñu ciy jaaye ñu ciy jaare di wax yu mel noonu mel na Touba day dëkk boo xamante ne ni nga xam ne faawu yow itam nga ñëw leeral leen ne loolu nekkul loo xamante ne ni waa dëkk ba ñoo ko ñoo ko jël ay nit ñoo ci profité rek di ko def waaye nekkul loo xamante ne ni lu officiel la lu am ca lu am ca dëkk ba kon laaj boobu tamit faawu ñu tontu ko lu tax nit ñi jàppee ñu noonu bokk na ci laaj yi mu laaj tamit mooy lu tax réew mi ñu nekk muy réew moo xam ne dañu wax na république la maanaam ñëpp a ko bokk ay décision maanaam ni ñu tëralee réew mi ni réew mi doxee li tax ñu di ko def te du kenn duñu ci laaj suñu xalaat dañuy jékki-jékki rek jël décision yi ndax loolu ànd na ak ñun suñu pas-pas ak suñu suñu njullite wala déet loolu lépp kenn duñu ko laaj te loolu tamit war nañ cee tontu nan la war a nan la war a demee. ay itam beneen laaj bu am solo boo xam ne moom ci jamono jii la gën a fés maanaam ci at yi néew yi nga xam ne li ñuy wax réseaux sociaux yi bari na lu tax murid yi mujj doon. wasila mooy moyen bi nga xam ne képp ku bëgg sa mbir siw rek ci ñoom ngay ñëw information bi gën tuuti bu amee ci Touba dangay gis ne presse bi ñëpp koy relier ba noppi nañ koy waxee nañ koy waxee dafa mel ne dañ koy def ci anam boo xam ne day ànd ak buzz maanaam day même bu nekkee lu ñàkk solo lu ñàkk solo rek du tee danañ ko xaw a rëyal ba ci koy dégg moom dana am lu mu lu mu def ci moom laaj boobu itam ab laaj la boo xamante ni euh, bokk na ci tontu ko bokk na ci euh, taxaddi dëkk yi nga xam ne mi nga xam yi nga xamante ni mi ngi dëkk yoonu murid sëñ bi tamit laaj na ci taxaddiyaat yi ndax bokku ci ndax jotut yoonu mu delloo feeñalaat bu baax dooley politique ak dooley économie ak dooley sociale ji nga xam ne moom la ko yàlla jox ndax taarix won na ne ba tey jii day mbooloo moo xamante ni li mu yor ci doore ci politique ak ci économie ak ci sociale yàlla def na ne fii ci réew mi ñoom dong ñoo ko fi ñoo ko fi yor donte la nag lu am am maanaam ñoom jëluñu ko jëluñu ko ci li gën a fës di ci xeex kenn waa walakin bil aks maanaam njariñ la njariñ la ci réew mu fekkonte ne ñoom ci seen bopp xam nañ ko bu baax ñeneen ñi ci des tamit xam ko maanaam yoonu murid dooleem njariñal réew mi la ginnaaw bi mu nekkee njariñal yoonu murid ba noppi dafa nekkaat njariñal réew mi léegi nag ndax jotut yoonu murid si boppam xamaat boppam dooleem jooju mu am dooleem jooju mu am mu feeñalaat ko bu baax a baax a baax ci nit réew mi di doxe buñ àggee ci di laaj réew mi ak ni ñuy tëralee réew mi nu muy doxee mu teg moom itam mu teg ay ay sartam ne man kat ci kaw anam yi laa koy laay àndeek nit anam yi laa dul àndeek nit képp koo xamante ne nii ànd nga ci ak man ma ànd ak yow yow nga dem ma dem te ñëpp xam nañ ne yoonu murit ku bàyyi loolu même ñu bokkul ci yoonu murit ñi nga xam ne dañuy analyser nii rek mawdu'an yan maanaam ñoom fëruñu fenn dañuy wax nii rek dañ lay wax ne ku Tuubaa àndut ak yow mënoo falu ci réew mi loolu tamit bu ñu koy wax jubluwuñ ci maanaam song ñeneen ñi di leen xeeb wala dara déedéet day doole joo xam ne yàllaa ko def yàlla moo def ne moo fi nekk kon nag ñoom ñi ko yor war nañ koo xam téye ko jariñ ci seen bopp jariñ ci jariñ ci jariñ ci réew mi bañ a bàyyi réew mi ci loxo yi ñoo xamante ni ni ma koy faral di waxe ñaare ñun ñi ñuy ñuy jiite mooy xale yi ngay romb fii ñuy dem école ab diir bu gàtt ñooy dugg ci politique bi wëlbati ko ñëw yilif ñu léegi ñun ñu toppaat seen ginnaaw te moo ne yàlla xam na ne jamono bi ngay toll ak moom fii da nga ko daan sarax ak defe nañ joxe ndimbal la république rek amul lenn lu soppeeku ci moom mooy nga xam ne leer na la yaa ko ëpp a xam waaye di topp ci ginnaawam yooyu tamit yu war a soppeeku la réew mi ñoom ci seen bopp sax ñi nga xam ne ñoo ñoo gën a ci wet googu njàngu njàngu ñoo dem nañ ba xam ne réew mi nii muy doxe warul ñoo doxe maanaam nit yi diine yi bu ñu wax réew mi daanaka ñoom ñi nga xam ne ñooy ñoo composé réew mi dara waru fee dox te ñoom ànduñu ci ndax mbas mi am rek yaa ngi dégg fu ne ña ngi fay wootee teñ cee boole nitu diine yi ndax am na ci yoo xam ne ñoom la nit ñi di diglu koo xam ne nag nit ñi yow la ñuy diglu waroo xaar sax bañ di la woo waaye yaa war a taxaw sa taxawaayu bopp ni nga xam ne ni ñi fi jiitu noonu lañ ko doon defee bokk na ci laaj bi mu laaj ne mënta ñàkk mu am ñu tontu ko tontu lu leer ngir ñu mën a jàkkaarloog jafe-jafe yu ñuy tee dem muy war nañoo nag maanaam yeesalaat ni ñuy xalaatee yeesalaatee suñu xalaat tajdiidu fikr al muridi faw mu am ci li jëm ci yi nga xam ne mu taxayiraat la ndax alquran wala lislaam sax da ci am ay sawaabit yoo xam ne du soppeeku mukk waaye da ci am yoo xam ne day soppeeku ba jamono doxee tuuti waris na ko mën a seet ci anam goo nga xam ne kenn du ko dindi waaye dañ koy méngale ak jamono bañ bañ koo gën ko mën a jariñoo loolu itam jafe-jafe la boo xam ne yoon wi am na ko mooy yu bëree bëri yoo xam ne nam daan demee ca ay jamono jamono laaj na mu am ay soppeeku maanaam kenn du ko dindi waaye ñu soppi ko ba nga xamante ne ni dees na ko gën a mën a dees na ko gën a mën a jariñoo yooyu mooy def yi nga xam ne moom la sëñ bi leeral na moom la yoonu murit di jànkaar jàkkaaru tey jii te ngir mu man koo mu man koo euh, jéggi wër ko ba euh, risaala maanaam mission bi ko bi nga xam ne moom la war a dox te mooy defar nit ak defar àdduna mu mën koo mu mën koo mu mën koo def andi nag yu bëri yu nga xamante ne nii wax na ko ci ci ay ay amsila ay namazij ay misaal ay exemple yu wone ne lii taxaddi la ab dëkk la ab jafe-jafe la bu taxaw ak ci kanamu yoonu murit di ko dee def li nga xamante ne nii moom looy moo moo ko moo moom la war a def te comme ni mu ko waxee da ci am yoo xam ne ci suñ biir la am ci yoo xam ne yi jóge ci bitti la yi nekk seen biir nag ni mu ko waxee moo gën a jafe moo moom la ñu war a gën a sonn waaye nag moo gën a naqaree jàkk jàkkaar lool ndax dafa nekk set biir ndax nit ki taxaw seet boppam mu xaasaba boppam xam ne lii ne ci man jaaduwut mu bàyyi ko loolu moom lu jafe-jafe la ni ko sëñ Fallou leeralee daanaka ñun ñëpp dañuy wax naan nit ñi nit ñi rek nit ñi de moom dañoo doy waar nit ñi de moom nangam te ñun ñooñu ñun ñuy wax loolu ñun ci nit ñi lañu bokk maanaam kenn ku ne war ngaa xool jafe bi am lan moo ci say wàll ba nga man ko dindi yoonu murit tamitam jafe-jafe yi nga xamante ne ni moom la am war na cee xool li nga xamante ni moo ne ci biiram mu jàmmaarloo ko moom te loola la ca jiitu du ñenn lu dul ñi nga xamante ne ni ñoo ñi nga xam ne ñoo aju ci yoon wi nan lañ nekkee jafe-jafe ci yoonu murit mooy li ëpp ci ñoom yoonu murit dafa rafet taaru ci ña ko xamoon ña ko Sëñ Tuubaa jàngaloon wala ñu ko jëlee ci Sëñ Tuubaa ñañ ko jàngaloon génn ñëpp dañ koy xeemam di daw di ci ñëw sëñ bi tamit yàlla defal ko ak nangu boo nga xam ne mbiram lépp a jag ba tax ñëpp di fàq di ñëw léegi mu jum nekk mbooloo moo xam ne nag li ëpp ci ñoom yaakaar naa sax ci foofu laay taxaw ndax waxtu mi ngi jeex li ëpp ci mbooloo mi ah, dese nañoo xam dëgg-dëgg liñ daw ñëw lu mu doon yoonu murid wi ñu daw ut si mooy lan. nit ñi dese nañ ko xam li ëpp ci mbooloo mi xamuñu ko ba tax na nit moom ni ko yàlla bindee faaw muy wax di jëf ci biir ay waxam ak jëfam nag mi ngi ciy soppi lu bëree bëree bëree bëri ci yi nga xamante ne ni moom la sëñ bi tëraloon ne mooy mooy yoonu murit ba nga xam ne tey jii ku koy xool di déglu wax yi ñu ko sëñ bi waxee di déglu euh, rawatina liy jàll ci inlam bi ci infra ci média yi da ngay dem ma dem ba yow da ngay jaaxle dootoo xamati ndax dafa am ñaari murit gi nga jàng ci sëñ Tuubaa ci téeréem yi ak murit gi nga xam ne moom la nit ñi di waxtaane muy loo xamante ni lu doy waar la euh, comme wax nañ na waxtu euh, egsi na kon dañuy yamandi foofu rek sëñ bi indi na ci yeneen taxaddi yu bëree bëree bari bokk na ci ñàkk organiser bi te muy lu am am solo sëñ Tuubaa defoon ko ci gàttal rek mën nga coo joxe misaal boo jëlee këru njaarim gii ñu ko mujjee bu mujjee nekk rek boo buñ la wootee buñ la wonee photo bi nga xam ne moom lañ jël ci kaw rek daa gis ne Sëñ Tuubaa moom àggoon na dayoo ci ci nos sans na ñuy dugg ci yeneen yi nga xam ne adwaar yi ni mu ko séddale woon kenn ku ne la nga war a def mu féetale la ko te yooyu yëpp di ay jafe-jafe yoo xam ne mi ngi dal yoonu murit alal ji bari na doole ji bari na lépp bari na waaye mbir mu ne teg ko fañ ko war a teg tax na ba Euh, ni mu war a demee demee wuñu ci fi may tëjee rek mooy fi mu mujjee mooy li ñu wax ne ay attaque la yu jëm ci yoonu murit dama ci jël benn rek boo xam ne moom ci ci biir la nekk ñu bëri yi ñuy wax ne ay yu jëm ci yoonu murit da ci am mooy bi mu wax ñi nga xam ne dañoo judd ci yoon wi fekk seen maam àndoon ak Sëñ Tuubaa ñu jàng yoonu murit ba xam li mu doon tey jii ñu gis ne li ñu wax ne mooy yoonu murit ak ñoom liñ jàngoon xam ko bokkut ak yoonu murit ñoom ñu jug di def ay ay ay ay ay jéego ngir bëgg leeralaat yoonu mu murit waaye mu mel ne dafa am ñoo xam ne dañuy jàpp ne ñii kat li ñuy wax ne mooy yoon murit du yoon mu murit di dal ci seen kaw te ni mu ko waxee waruñoo dal ci seen kaw dañ leen a war a jël indi leen li ñuy wax bu fekkee wér na te yaakaar na li ci wér na bu lépp wérut li ci ëpp wér na ñu jàllale ko jariñoo ko kon daal day maw dox boo xam ne bu ama am solo la bu yaatu la boo xamante ni maa ngi gis ne doon na jaadu ci boo ñu amee ci fil furos alxaadima ci occasion yi di ñëw def ci sax lu mel ni ay nadawaat wala ay table dana am solo ndax euh, euh, njariñ li gën a gën yaatu kon dañuy tënk foofu rek di fàttali mbokk yi ne daayiratu muxaddamatul xidma mi ngi leen di jox dox daje suba incha allahu taala ci beneen tomb boo xamante ne ni mi ngi nekk al muhafaza ala al bia waajibun diini wa daruriyatun ijtimaiya maanaam sàmmoonte ak dend bi mooy li ñu wër warwaru la ci diine war waru diine la maanaam diine daf ko waral ci ñun te itam ginnaaw bu ko diine waralee ci ñun tamit lu mënta ñàkk la ngir suñu dund jàkk muy ab bind boo xamante ne bu soobee bu soobee yàlla suba incha allahu taala sëriñ Fallou Bousso Thierno dana fi ñëw ànd ci ak mbokk yëpp kon ñu ngi tënk rek dellu di gërëm sëñ bu sa Assane waxtaan wi am na solo xañ na waxtu yu moo doyul ngir euh, jàll ci yëpp yi nga xamante ne war na ko ci gën leeral kon ñu ngi lay sant la gërëm di la ñaanal suñ borom dolli xam-xam bi te sàmm la nga yàgg a liggéey yu mel nii euh, dama koy faral di maa ngi ko koy wax léegi di ko ne ko sa ay mawdoonaat dafa am solo lool ndax day mawdoon yu nga xam ne day laal dund gi maanaam li ñuy dund mu amal ñu njariñ mu baasaratan daf ko daf ko yitteel kon ñu ngi lay ñaanal suñu boroom dool la ci tawféex del di sant waa daayiratu Muxaddamatul Xidma di sant mbooloo ñi nga xam ne ñoo ñu doon topp ñëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.